téléspectateurs à 221 TV tey nag euh, bu ngeen gisee bawol bawol bi ni mu sen xel wara match màcc ne dem na fenn ci dëkk bi bo xamné ne fekk nañ fa suñu bokk mu melni ni pël yi lay doon oh, fi ma nekk nag euh, tey jii toog fa di wax ak yéen en direct ci à 221 TV ak suñu plateforme yépp duma leen ko netalé sama gémmiñ damay dem ci benn reportage bi nga xamné mom la leen wajal pour wax leen fi ñu féete tey ci Sénégal ak waxtaane lu bari ak lu nar amal njariñ ñen ci askanu Sénégal ñu dem ci reportage bi Situé à 238 km de la capitale sénégalaise, Ranero Ferlo est le troisième département de la région de Matam et la deuxième circonscription la plus vaste du pays. D'une superficie de 15 000 km, cette localité du nord-est du Sénégal compte 54 289 habitants, dont 26 995 femmes. Zone écologique du Ferlo, Ranero a été érigée en circonscription le 21 février 2002 par le décret numéro 2002 Elle compte trois communes que sont Tcholi, Oudalay et Velingara Ferlo. La caractéristique de cette zone dite sylvopastorale constitue l'une des aubaines de la population de Ranero dont l'activité principale est l'élevage. Aujourd'hui, le conseil départemental est dirigé par l'honorable député Alioun Dimouroussou, natif de vélingara Ferlo. tey nag euh, ñu ngi fii ci Ranérou ñu ngi nekk ci Ranérou nekk lu toll ci deux cent trente huit euh, fi nga xam ne mooy capitale Dakar euh, li nga xam ne mooy ay quarante degré la ñu doon romb li nga xam ne mooy ay ay centaine de centaine de kilomètres moom lañu ñu consommé loolu nag dara taxul ñu def ko lenn rek moo nekkoon mooy jëli jo jooyu askan wi jëli bëgg-bëggu askan wi waaye jëli li askan wi di dundu fenn ci Matam région de maatam précisément ci ci ci fi nga xam ne mooy département de Ranérou département de Ranérou nag bu ñu ko waxee rek xel dafay dem ci kenn mooy kan mooy le président du conseil départemental de Ranérou ñu koy wax monsieur Alioune Dembourou Sow wala honorable député Alioune Dembourou Sow euh, ma koy dalal sama plateau di ko jox kàddu gi di ko nuyu monsieur Sow dalal nañ aoudu billahi min asheytaan arrajim bismillahi rahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin monsieur Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu aussi mboolem ñi nga xam ne yéen a ànd ci liggéey bi li ko dalee ci directeur bi ba ci chauffeur yi képp kuy liggéey ci acti deux cent vingt et un ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye tamit di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan à travers euh, Dakar euh, actu deux cent vingt et un ci biir réew mi ak ci bitim réew waaye di nuyu ñi nga xam ne ñooy suñu mbokk ñu dekk ci biir département bu raneeru surtout notable yeeg responsable yeeg kilifa diine yi képp ku fi nekk rek ci biir département bu raneeru surtout région bu maatam ñu ngi lay nuyu di la ziar di ziar waa réew mi yëpp di leen baalu ak ndak ci koor lañ génn di baalu ak ñi nga xam ne ñoo leen jiite ci département bi di baalu ak sénégalais yi nga xam ne aussi dañu bokk ci ñi ñi tànn ñu teewal leen ci pencum ndaw réew mi ah ñi fay doxal loo xam ne léeg-léeg mu nekk nit ki léeg-léeg mu naxari nit ki kon bu baalu ak jote dañuy baalu ak mboolem jullit ak même ñi nga xam ne nekkuñu sax jullit te ñu bokk ak ñoom réew mi dañ leen di baalu ak di leen baal ak ci suñu côté ñun di leen nuyu di leen bismillah fii ci département bu Ranérou Ferlo di la wax nag tey da nga piraté da nga fay incha allah. <laughs> d' accord dinañ dinañ dinañu xool nu koy fayee.

xam ne département Ranérou la village au village pour ñu xam balay dara ñu xam kan mooy Alioune Dembourou Sow kon damay daal di dem justement bàyyi kook moom mu mu dalal leen ci élément bi ñu ci ndir ñu mën a xame ki nga xam ne mooy Alioune Dembourou Sow aliw ku ko xam xam na ne aliw nekkul nit ku violent Aliou man ànd nañu presque mën naa wax ne quarante ans ci ren euh, musuma ko at musuma gis Aliou yor paak musuma gis mu yor yet musuma gis mu yor jaasi te lii may wax yàlla laa ciy jël seede kenn gënuma koo xam à yaayam bi ko jur wala soxnaam yi muy bokkal lal bépp doomu adama bu fi nekk man maa la gën a xam Aliou te aussi nit la koo xamante ne kii euh, mosuma ko gis aussi mu baay waxtu yàlla laay seede li may wax waxu seede lu jëluma seede benn téléspectateur déedéet yàlla laa ci jël seede mosuma koo gis waxtu jot julliwut mosuma koo gis nit génn àddina jaalewut mosuma koo gis nit diis ko soxlaam te defu ci mais Aliou ku ko xam dëgg dëgg dëgg mën nga koo wax lu ne ba mu des ku violent taxawaayam ci fépp rawatina dëkk bii mu juddoo euh, kuy dimbale ay nit la fan yii rek yàggul ambulance bi mu fi indi ñëpp gis nañ ko ambulance bu bees tàq boo xamante ne bii comme yii ñoo nekk Paris comme yii ñoo nekk dakaar nekk na nit koo xam ne bëgg na goxam mais eh, yemale na fépp fi mu toll nii képp koo xam ne Aliou xam na la muy yéen taskatu xibaar yeeg ñeneen képp koo xam ne gis nga Aliou bés ni ki tey du changé ci suba du changé gannaaw suba nit la koo xamante vraiment kuy dimbale boo xoolee même ay biomak yi mu doon jot mu jógee ci ci nguur bi kër gii la biomak mujj judd mujj dugg. manam fi jàmbur la ñëk jox mujjé fi même ñi muy dimbale jàmbur yi lay jox mujjé fi mi ngi melni fi fii amul benn benn mag frère am fii bu fi am passeport diplomatique ñi muy jappalé ñëpp ñeneen lañu ñu mom yi li ñëk njëkk a def mooy dimbale ñeneen ñi mujjee eh, waa këram. c'est un peu compliqué donc de parler eh, de Fambary parce que lui c'est moi donc parler de lui c'est un peu difficile mais je vais essayer quand même euh, en résumé. C'est comme on dit, euh, je vais juste servir euh, d'un proverbe anglais qui dit « Actions speak louder than words ». Je pense vous comprenez ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que les actions parlent plus fort que les mots. Donc on peut rester là à critiquer, à vouloir dire du mal sur la personne, sans pour autant savoir qui est la personne. On dit tout le temps, avant de juger la personne, il faut toujours chercher à savoir c'est qui la personne d'abord. C'est important. Voilà, il faut le connaître d'abord avant de le juger. Don't judge me if you don't know me. C'est important. Franchement, c'est quelqu'un qui, qui a un cœur en or. Je dirais mieux, un cœur en diamant. Vraiment, c'est quelqu'un qui est gentil. Non, violent, vous savez, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Ce sont des gens qui, qui ne le connaissent pas du tout, qui sont là juste derrière leur téléphone pour émettre des jugements de valeur. Ça, c'est très facile. Mais vous, aujourd'hui, si on vous disait que c'est le cas, allez-vous dire qu'il est violent vous avez passé une journée avec lui. Comment vous pouvez le décrire C'est quelqu'un de très humble, quelqu'un qui n'est pas du tout violent. Et puis, lui, il a des amis Poulard, il a des amis Wolof, il a des amis Serrer. M. Ngom est là. Il ne va pas me, laisser, il va pas me démentir. Donc ça, ce sont des preuves. Quand je vous, j'essaie de parler de mon mari, ça va être un peu difficile, comme l'a dit ma petite sœur. Euh, euh jëkkër la joo je ne euh, buñ ko waxee ñun ay soxnaam day mel ni li ñu dëkk ak moom moo tax mais jàpp nañ ni ni mu dëkkeek ñun noonu la dëkkeek ñëpp ñëpp ñoo yam ci moom. moo tax sax bu ñu gisee ay temps nit ñu di wax ci réseaux sociaux yi di ko jugé comme ni ma ko rak sama rakk ji waxee léegi léegi dañuy jugé nit te duñ ko xam mais honorable ku ko xam xam ni melentaan sax du ko rey. nit ku bax la ku bëri yërmande la ku ku xam bopam la ku fonk doomu aadama la ça quand même euh, mi mi sikki mi alani pour de mbiɗa waɗa démentir onone koye mon son daari lom vous pouvez juger vous même que neɗɗo oɗo ko neɗɗo mo ganda ko neɗɗo jam c'est une personne de paix kanko il est social il n'appelle jamais à la violence euh, xam naa ne daal damay euh, li ma fi dégg ak li doon lire damay sumi tengane bi rek pour meuna a meuna a mën ak ki nga xam moy président donc président tey gis nañu gis nañu témoignage bi ah gis nañu témoignage bi dégg nañ lu ñu wax euh, olof dafay faral di wax ñun olof moom nit bu dee baax na ndax mbokk yee ko wax dañ koy war wax ci olof donc loolu dañ ciy dellu rek ñu jéem a xam nit ki lan la ak jikko tey jii témoignage yi ñu dégg euh, daana saabu du fóot boppam waaye ñeneen wax nañ ko ceew muy nekk say xarit mu nekk say soxna ñu ñu jàpp ne euh, daanaka yéenay gën a mën a xame lan moo war a mën a expliquer noo jàppee tey beneen image bi nga xam ne ah man mi nekk Dakar ak li may gis ci réseaux sociaux yi li may gis ci fu nekk demeewul noonu parce que du nit bii man laa doon gis ci réseaux sociaux yi du nit bii lañ ma doon wan ci média yi ci laa doon dégg tamit Aliou Dembourou Sarr euh, merci xam nga dañuy sant yàlla gën ko sant tax àddina ah wax moo ànd te it nit aussi soo tekkee rek ñu wax ci yow kon li ñuy njëkk d'abord mooy fi ma njëkkee woon rek képp koo xam ne amal nañ ko ak jéggulu ko waaye képp koo xam ne aussi wax nga ci ñun loo xam ne nekkul ci ñun jéggal nañ la tamit ci xol bu sedd guy ndax su ma émission bale passé dama ne woon euh, damay jéggulu koo xam ne dañ ko tiital ci man mu tiit te ab Sénégalais la ñàkk xam la waaye du ma jéggulu nag wala du ma jéggal koo xam ne daf ko neex rek mu may dëkkal foo xam ne dëkkuma fa waaye même ñoo ñëpp boole naa leen jéggal leen ndax li tax ma jéggal su may noon mooy ñi nga xam ne su may soppe lañ ndax àddina moo ni demee yonante bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, bu mu dugalee lislaam noon yi bari woon nañ trop waaye nag macha allah tey lislaam euh, même bu amee ay noon it yaatu na kon bu demee ba nga xam ne yow tamit ci kooku ngay roy ci kooku nga bëgg kooku mooy sa lépp lépp loo am kooku la te moom amoon na ay noon defe naa doomu aadama benn doomu aadama warul bañ noon ndax daf lay daf lay may courage fokk nit ñi xam ne euh, Euh, kër gi ma dekk maa fay caat te suma pap macha allah daf ma yar fu ma war yare yaree jàngal ma alquran duggal ma école bu ci nekk am na lu ma fa jàng waaye jàngal ma àddina nag ndax daf ma tegoon wetam ma nekk euh, doomam bu mujj may fanaan néegam mu dem ba am quatre-vingt-seize ans donc guddi ak bëccëg saa yu yeewoo moo may yee ñu julli fajar mu delo jox ma lepp lo xamne ne gan yi fi nek ci kër gi man ma len di géré donc amna lu mu jëmbat ci man lo xamne ne wax deug yalla xasté duma yëngal euh ciokas duma tital yalla dong lagam gëm te it mom laa ragal bugguma togn nak ben doomu adama bugguma def len nit lo xamne da dafay nakari kon bu démé ba nit ñi di témoigner loolu di wax en tout cas Aliou Dembourou jàmm la sekk ak nit ñi te it loolu euh, euh, buñ ko mënoon nga reportage bi mënoon nañ ko def même Dakar euh, ndax jàmm kese lañ sekk ak nit ñi jàmm aussi lañ fas yéene sekk ak nit ñi ndax xam nga ku ku nekk deux mandats député diriger conseil départemental avant loolu nga nekk ci ay ASC. E. avant loolu nga gérer man mécanicien la de formation gere forage nga xam ne ñëpp foofu la ñuy daje di wut ndox donc di leen dalal di leen jox ndox di toppatoo jur gi yooyu yëpp nga jaar ci doo mus a dem tirbinal ba fekk fa suma tur donc suma casier judiciaire vierge la bu leer naññ la dara nekku ci musuma dem tribunal musuma porter nit plainte nit musuma porter plainte te it ñu may tooñ te it am naa capacité mun a réglé tooñ yooyu mais musul am te fasu moo ko yéene aussi def dama ko wax ne même bu ma nit tooñee euh, mun na am damay mer parce que nit nit la mais nag su amee benn waxtu ñaari waxtu rek bu ñu tasee sax soo ma nuyul sax ay ree ay ree la may def donc loolu nag du ci man dam koy sante suñu borom waaye sante ko suma ñaari waajur ak sama mag ñi nga xam ne ci seenu keppaar laa yaru ndax Euh, euh, suma pap bu mu génnee àdduna ak léegi depuis 94 boobu majeur naa màgg naa mais suma mag yi aussi dama leen di sant gërëm leen ci loolu ndax euh, teetee gi ak njàppal gi mais pour xamal na daal lépp luñ fi coow ab lépp luñ ci wax musul changé ci man virgil ndax xam naa ne defuma waxuma te nag ñiy wax dañ naan bant lu mu yàgg-yàgg ci ndox du tax mu nek jasit donc wax bu lu mu bari bari bari bari wax la rek donc bés ñew lepp da fay leer donc yoyu dépassé naa tay tey defuma won dara nak ndax wax deug yalla ma ngi sante yalla lu lu ma yok ndax jurna ay association jurna ay nit ñi dajale fu nek ni ay Canada amerique France ay ingénieur d'informatique ay ño xamné ne dajale nañ seen alal ñi ñi ngi tollu ay 30 millions ñi ay 40 millions suma leen waxoon suba nañ ko duggal suma compte ñu duggal ko wu ko mais def ma jox benen image ño xamné xeyna fofu parce que nak dama demoon seetu benn wàllu yàlla euh, fu ñuy wax le boudou mu ñaan ah yal na la yalla yok yal na la yalla ubbil ci la ciow bi am xam nga suñu borom dañ nan buy am na ñuy wax ne buy defar day mel na ku yàq déedéet buy defar day mel na kuy defar suñ borom du yàq donc defar la woon rek pour que nit ñi xam kii parce que loolu moo indi man def naa yu bari de avant yii ak yi avant may dugg ci politique bi Ibrahima Sow mii nekk sama gannaaw wax sànq xam na ne avant may nekk politicien nu ma doon dundee parce que suma suñu waa kër suñu soxla woon dara même ci suma néegu papa wala su ma su ma ci xaarisam wala leneen Senghor lañ ma doon wooyee boobu président Senghor mooy président suñu soxlaa dara dañ naan Senghor demal indi boo ma waxee Senghor rek daf may neex damay dem indi la lépp loo soxla ci néegu paa bi ma tegal la ko mooy suma mag yi parce que li ma sañoon su ma néegu pap man rek maa ko sañoon su ma mag yi ñu ngi may seetaan donc yooyu yëpp nag ci loolu laa màggee bu ma demee bu ma amee ñaar fukki dërëm damay jël fukki bi jënd ko ñëw xool ñi nga xam ne ñoo wër suñu quartier dimbale leen ko noonu laa màggee xawma ay denc wala tere nit wala bañ su may doom yi am na koo xam ne olof laa ko tuddee suma association am na ay njaagu am ay mandé am ay olof am ay séeréer am lépp donc yooyu addina la bu suba bu leen neexee ñu waxaat ci Aliou Dembourou leneen chaque jour nga dégg am na ñoo xam ne ñu ngi jàmbi ñiy def ay vidéo ñiy def di dangam nangam bàyyi naa leen ak yàlla ak suñu borom. d'accord ci vidéo yooyu récemment rek gis nañ ci ben mu jugee ci ben goor bu nek ci ñi wax ñu nane foot Tampi mu melni dafa dalat sa kaw ay dal ay ay dal yu metti eh, nan nga jànkate lolu attaque bobu tamit. di sante sant di gërëm bu baax te yàq bu bu ko nekkee suba mu defaat benen vidéo pour Aliou demb en tout cas ci ay xar dañ ci génné asaka dugub dañ ci génné asaka militant aussi dañ ci génné asaka lolu Aliou demb moo ko wax je le confirme.

justement voilà donc xam euh, ñu ngi ma koy joxal micro bi légui ci ci public bi maa ngi maa ngi xaar loolu euh, voilà Aliou Dembourou président conseil départemental tey euh, raneru mu nekk département bi nga xam ne ci gis-gis mag na lool mhm. mag na loolu ci gis-gis donc donc ngan na loolu parce que keroog man maa ngi maa ngi fàttaliku démb bi ñuy nekkee Vélingara war a jëm si waat raneru ma laajte kilomètre bi ñu ne ma cent et quelque ma ne déet mënul nekk mënu nekk ci benn département ñu naan ma damay daw cent et quelques donc tey jii nga jiite département bu mel noonu ak ak ak ak zone nord bi liñ ci xam ci ci wàllu lu metti ci wàllu ci wàllu euh, ñàkk accès ci yenn yi est-ce que am ngay jafe-jafe ci sa gestion fi nga xam ne mooy mooy conseil départemental. waaw euh, jafe-jafe xam nga àddina doomu aadama ak jafe-jafe ñoo donc euh, tànk yaa ngi dund de yaag jafe-jafe yenn dëkk surtout nag comme li nga wax xam nga département bu Ranérou à part Goudiri le département bu est a ci Sénégal presque 17 000 km² kilomètres carrés yu à part département Goudiri mot na région de Thiès trois fois commune Oudalaye mot na république de Gambie ko la commune ci biir département bu donc nag su ma ko waxee souvent ñoom Abdou Mbow wala Elentine dañ naan bul jël sa département bi nga naan moo région de Thiès mais trois fois région de Thiès là. donc si bu ñu la ko yoon yi am jafe-jafe courant bi am jafe-jafe nga jiite mag jiite ndaw jiite xale jiite lépp donc boo ne amoo jafe-jafe da ngay wax rek ndax jafe-jafe moom euh, munta ñàkk mais nag sant yàlla aussi ndax euh, démb ku ne woon Ranérou tey ku yeewoon ku mel na Amadou Ogg wala Amadou Sampolel wala Goudiri mm. boo nekk fii mooy Ranérou ak lamp yi nga fi gis tey Euh, defe naa ñoom dañ naan la Ranérou avancé na donte na am na yeneen ak yeneen yu ñu soxla mais nag Ranérou tey ku gis bâtiment yi ku gis nu muy avancer station yeeg yoon yeeg lamp yi ñi nga xam ne ay borom daraja lañ ku ci nekk di woote euh, mooy quatre communes yëpp ku ci nekk di fa ñaan ay suuf bugg fi investir nga xam ne incha allahu rabbi Ranérou dana bokk ci département yi gën avancer te am na lu fi am loo xam ne amul fenn ndax Ranérou nit ñi dañoo baax Ranérou nit ñi dañoo yaatu Ranérou boo fi ñëwee et puis euh, tur bi Ranérou mooy lu weex président fii lu ubbee campagne am 2012 nu mu yaatee département yi taxul électeur bi bare noonu waaye nag président Macky Sall dafa quitté Dakar rek ñëw Touba def directement Ranérou fii lu premier mitinam bu njëkk en tant que kuy wut réew hmm.

bu jéggee lépp li leen boole tey lan la ñu mën a wax ne mooy moo moo nekk ci taxawal Aliou Dembourou Sow ak président Macky Sall gannaaw bu ñuy dégg sax su nekk kay xamle ne du du nekk ko APR yow makiste ba mu mel ni kon say say say say relation ci président direct nga koy jokkale tey nan nga ñu mën a décrire euh, euh, li nga xam ne moo la boole président bu jéggee sax politique président suma mag la suma xarit la maa ko bëggal sama bopp tànnal ko suma bopp waaye it ma dem aussi ba xam ne président Macky Sall mii def ma bëgg ndax tey rek gis nga Ibrahima Sow ñëw indil ma téléphone ne président woote na sa téléphone jot na turandoo am ndax am na numéro boo xam ne xëy na moom rek moo ko yor te turandoo am mu ngi ko yor Dakar woo nañ ma ci ba sonn donc yooyu yëpp defe naa boo amul woon euh, jege woo woon nit ki wala bugg la wala sopp la du ngeen fa egsi ak président de la république nu mu baree yitte mu jël téléphone am di la woo di nemmeeku fan nga nekk fan nga toll rakk léeg def man rakkam la et puis su ma mag la nag dama ko bëgg moo tax damay wax ne nit ñi ku ma jàppanteer rek du man nga tooñ cest à ku ma bugg jot nit ñi xam nañ ko ku ma bugg jot ci Macky Sall nga may jaare parce que man mun nga ma wax lu ne ma jéggal la baal la mais nag boo ma jaaree ci ci Macky dafa mel na benn waay bu ñu mbéjoon ñu ne ko muñal mu ne fu may muñe lañ ma dóor man ci Macky lay muñe donc dama ko bëgg ba tuddee ko doom tuddee ko ay nag gis nga wan naa la sama benn yëkk boo nekk lamtoore rek day ñëw mm. donc kon bu ma amoon suba leneen yi dama ko koy tuddee lu ma gis rek pour man mu ko war a tuddee Macky Sall pour sopp ko ak bëgg ko donc loolu nag du dara parce que bi may bëgg Macky Euh, nekkul woon dama séentu woon ne Macky day nekk président de la République 2006 dama bokk ci euh, mouvement bu ñuy wax les amis de makisal président Mbagnick Ndiaye jiite woon ko te xaw ma Macky gisuma ko en 2007 président Wade def fi meeting ba pare ma nekk secrétaire général UGTEL mu jàpp ma ci loxo présenté ma makisal Sall boole ñu donc yooyu yëpp euh, bi ñuy xamante ak bi ma koy sopp di ko bëgg donc mun naa ne sax xaw ko woon bu baax. mais Macky daal bu ma doon wax ci moom fii la ñuy fanaan xamal ne dama ko bëgg soo ma buggee jot daal jaare ma ci makisal soo buggee bëgg am ci man gusura boo buy jar ay 3 millions tàggal ma makisal boo buggee jot suma jikk waxal ci moom lu lu dul loolu donc dama ko sopp dama ko bëgg suma xarit la maa ko bëgg mu nekk président mu bañ a nekk président constitution boole wuñu parti boole wuñu du ma APR Macky la loolu laa choisir donc mu nekk président mu bañ ko nekk laa yema le donc xaritoo bi yàlla rek moo ko def. tey xaritoo boobu noonu bu ñuy ñëwaat ba tey ci yow nit ki tamit ñu lay laaj ci président est-ce que mën nga ñu wax tey qualité wala jikko boo xam ne gis nga ko ci président Macky Sall bu tax nga sopp ko boo xam ne nit ñi amaana politique bi tax na xamuñu ko. xam nga li tax ma sopp ko souvent euh, lu tax damay roy ci moom lu bari ndax dal gi président Macky Sall dara yëngalu ko. président Macky Sall dafa yaru président Macky defa dafa jub président Macky Sall jullit la président Macky Sall dafa am yërmande fi nga koy gis noonu président Macky Sall dafa yaatu rarement ngay gis président bu jël otom taal ko di wër di wàcce verre di nuyu nit ñi en tout cas musuma ko gis ci Sénégal xaw ma ban beneen réew maa ngi ko géej a gis je pense que ci ci ci ci ci Thomas Sankara war velo wër ay population mais Macky mooy toog bu guddi taal otam wala bëccëg di wër di nuy ci ay grand place donc yooyu ay jikku yu ma neex ci moom la jikku yu may roy ci moom tas parce que amoon na fi lu nekk nag lu nekk yàlla dénk na ko président makisal mais dafa nekk nit ku dal tey bu su moo ko dégg muy wax ci nit lu bon alors que luñ koy wax yëpp nag koo xam ne chef d'état la nga am ay doom ay ay jërbaat am lépp nag ci sa loxo nit ki day toog fu ko neex wala këram yor whatsapp mbaa link mbaa youtube mbaa facebook jël saaga la ci kaw ba ci suuf nga xam ne sa benn jër jërbaar rek bu ci téyee kenn du yëngu mais mu jéggal la jikko yooyu yëpp dama koy roy ci moo tax bu ma nit saaga sax dama koy baal bu ma nit xasee dama koy baal waaye nag boo ma jaaree ci moom nag moom mënu ko baale moom <laughs> d' accord euh, doy na waar xam naa damay delluwaat rek euh, di laaj leen ba xam euh, Marietou Diallo justement disponible nag pour ñu joxal ma ko micro bi ci témoignage yi ba tey président ñu desaat foofu tey bala ñuy yegg ci ñoom Marietou Diallo ñu def seen témoignage ñoom ñuy liggéey ak yow en fait nan nga nan nan nan nan nga ñu mën a expliquer say relation ak ci biir conseil départemental tamit gis nañu ne député nga des des fois yaa ngi Dakar kon mën na am tâche bari peut-être nga ko fi am na kon nu organiser ak nu liggéey mhm. tey ci wàllu nit ak nit nan nga nekk ci ci ci ci biir conseil départemental bi lan mooy say relation ak ñi ngay liggéey ah sant yàlla xam nga conseil départemental équipe la dafa am bureau maanaam may président bi ma am vice président premier vice président deuxième vice président premier secrétaire élu deuxième secrétaire élu Euh, ñi nga xam ne aussi ñooy gérer administratif bi administration bi maanaam euh, euh, SG ak ay gestionnaire ñeneen ak ñeneen c'est-à-dire que équipe la ñoo ñëpp nag boo leen xoolee jàmm lañ sekk bu ñu demee conseil nag souvent dañuy xam nga conseil comme assemblée la idée yi wuute coow bi bari waaye ci mujj jubo rek la ñuy mujj ndax aussi am nañu am nañu ay ay ay euh, danañu wute ay gis-gis ku nekk day wax euh, li nga xam ne mooy mooy mooy xalaatam mais en nga xam ne conseil départemental bu Ranérou équipe la boo xam ne ci jàmm ak dal euh, la ñuy liggéey e vraiment que nit ñu baax lañ ndax bu ma fi nekkul li may nekk fii li ma yor dafa bari souvent ay ay ay ay ndaje am nga xam ne assemblée soxla na ma donc vice président bi mooy dem euh, premier wala deuxième wala premier secrétaire élu wala deuxième secrétaire élu ñoo mooy représenté fu ne donc yooyu yëpp euh, jàmm laa ñoom ak ak salaam ak euh, vraiment ay nit ñu baax lañ aussi doonte na euh, yenn saa yi boo ñëwee conseil nga gis foofu ay ay ay ay ay kaddu yu wuutee ku nekk di défendre position am parce que aussi ci démocratie la ñu nekk nit ku nekk day génne xalaatam mais mujjantel gi dañuy teg li nga xam ne mooy mooy intérêt département bu Ranérou am na ñoo xam ne sax du ñu ay conseil am na ñoo xam ne euh, euh, ay notable lañ mais ku ci nekk da ngay joxe li nga xam ne mooy si idée léeg-léeg am ku ma woo ne ma président bu ñu sañoon nii ak nii ngay ngay doxalee nii ak nii lii nga jël ko dugal ko mu nekk ndaw wala ci enseignement bi wala ci éduc euh, ci santé wala ci environnement ndax ñoo ñëpp de service la yoo xam ne dañu bokk ci service yi nga xam ne euh, ci ci ci ci conseil départemental lañ bokk maanaam dañuy liggéey ak moom surtout aussi administration commandement territorial muy préfet sous préfet adjoint préfet ñoom ñëpp service yi nga xam ne aussi euh, muy agriculture muy élevage muy éducation national ñu ci ñëpp ñoom ñëpp centre formation professionnelle eh, jàmm lañ sëg maanaam conseil départemental dafa yaatu moo ay partenaires yoo xam ne aussi eh, ñu bari ku ci nekk conseil nga eh, dañu dajale loolu yëpp moo tax souvent li ñuy doxee du doon suñu xel rek ndax dañuy déglu nit ñi conseil boo déggee conseil maanaam ñooñu da nga leen di déglu décision nag bu jotee nag ah da ngay seet da ngay jël décision ndax yow lañ ko dénk décision nag day métti souvent moo tax da ngay dëkk lu bari aussi parce que bu baaxee euh, dañ lay tàgg bu bone it ñu wax la safaan bi kon da ngay ñemee responsabilité aussi euh, dama mun a déglu nag dama mun a teewlu mais nag ku ñemee jël suma responsabilité la bu jotee aussi euh, ci ñoom li ñuy wax ci lay sukkandiku jël responsabilité Euh, dem avancer d'accord justement da fay melni kon dañuy daal di jëm ci ñom rek. Mhm. Euh, directement ki nga xamné moy mooy Diallo di vice présidente ñu jox ko cadeau gi mom tamit euh, comme ça dinañu mëna xamal. mom mhm. ci làmminam nan lañuy dundé dundee fofu ci conseil départemental bi mais aussi lan moy seen relation ak ban témoignage la mëna def ci yow. kon bu dé yemb nañu dem ci Maria Mariétou Diallo vice présidente ci conseil départemental euh bu Xané. Mariétou ayca bismillah. ata bisimila jibi kadi salminde foppe men arde ac de savinte on beltanama no fewi ɗo e département rani bisimilla moɗon salminde kadi bandiraɓe men worɓe wonɓe ɗo e jinnaɓe ɓe e conseil départemental e adg ɗi foof beltanima on fewi kadi ñalawma hanno ko ñalawma weltare ɗo e raniru sabu ɗum ɗo ene wayno miɗen ɗamaninoma ɗum waɗa saabu conseil départemental e nder golle muɗum han so wiyama won jo simtol mum waɗe nder duuɓi ɗi fuɗɗiɗi e gollade min torotaka saabu miɗen gandi conseil départemental ene golli ko heewi machallah e weltade no fewi e golle aliou demboure miɗen beltanima miɗen beltani kadi wondiɓe e hoddiɓe foof saabu neɗɗo goto tan wawa moƴƴinde hunde alay saago gollidiɓɓene kamɓene heɓe mbaɗi hen juuɗe mabɓe mbiɗen belti no fewi d'accord mu ngi mel ni loolu mooy kaddu yi xam naa dama lay abbu micro rek euh, jéem ko jébbalaat ki nga xam ne mooy Jibrilu parce que tey président kom man bool bool laa bu sob rek ñëw ba <laughs> boor yi <laughs> dama indaale tamit koo xam ne seen mbokk la <laughs> da nga sóoraale affaire yi quoi waaw du ma mën a tekki dama indaale koo xam ne moom daanaka bu ngeen waxee ba toppi rek dama koy mën a jox kaddu gi moom dinañu mën a expliquer lépp li nga xam ne moo moo ci tënk moo gën a wóor xam nga Sénégal buñ lay buñ lay tekkil rek mhm. soit ñi ëppal mhm. wala ñu la. indaale koo xam ne dana ko wax mu leer. ah man de je préfère lu waxati ci pulaare wax ko joolof mu ngi noonu donc kon Jibril ñu bàyyi ñu bàyyi Jibril mu leeral kàddu yi Jibril voilà ki nga xam ne mooy dégg nañu intervention ñu lay nga ñu rek en résumé euh, li nga xam ne témoignage yu mu def ci voilà euh, comme vous euh, Moustapha <laughs> yow boobu confirmé nga ko bawul bawul nga comprendre pulaar mais man euh, fi nak euh, ci sama gox la nek parce que Matam laa euh, donc euh, mariatu lu mu wax ci Aliou Dembourou ay témoignages rafet la parce que boo xoolee mu ne euh, liggéey bi ñu sëq bon liggéey bi day jaar ay yoon euh, dañ chaque fois ñu ngi kontaan am mbégte di liggéeyal ak mom du lëkkaloo ak moom euh, ci loolu euh, signaler na ben affaire mooy ben nit mënul def liggéey bi parce que conseil lañ wax boo waxé conseil nak donc mbolo la mbolo la du xel ben nit la donc ay xalaat la weccante xalaat la ci lolu nak mm-hmm. mariatu mu ngi rafetlu taxawayi Aliou Dembourou ci fi ci conseil départemental de département de Ranérou Ferlo Moustapha

dama bëgg am nga dama bokk ci membre ADS maanaam association des départements maa fa man lañ fa dénk euh, wàllu formation euh, éli conseil départementaux yi te suñu président may profito di que nuy muy ministre conseil président conseil départemental bu Kaffrine di suñu mbokk séeréer Adama Diouf euh, kon conseil départemental Ranérou boo doon xool bureau bi maanaam ñetti jigéen ñoo ci nekk ñaari góor maanaam ñun xaw nañ jéggi tuuti par euh, parité bi ñuy wax alors que rarement je pense que ñi ma xam en tout ca conseil département xaw ma euh, bureau communal yi mais conseil départementaux yi Ranérou rek moo ci am ñetti jigéen ak ñaari góor donc nag ñoom aussi ay nit ñu baax lañ euh, ñoom ñëpp parce que euh, ay jigéen lañ mais ay jigéen ñu mot seen place ndax dañ naan góor baax na jigéen baax na euh, liggéey aussi euh, aajuwul ci jigéen aajuwul ci góor nit ki deng ci waslu ak bi nga xam ne moom lañ la dénk ndax aussi ñoom dañ leen tànn ndax département bu Ranérou bu doonte ne bariwul noonu ay nit waaye lu mu néew néew mhm. am na soixante cinq mille yu tegal Euh, mooy recensement yi mujj donc loolu nag boo ko doon xayma tey ñi tànn ci ñeent fukki nit ne leen yéen a ñu jiital collectivité territoriale départementale bi donc ñooñu aussi ñi tànnaat ci juróomi nit ñu ne leen ci biir ñeent fukki nit ñooñu yéen jiite yéen tamit conseil boobu loolu sag la waaye yéen bu diis la daf la war a yokk nga gën a góorgóorlu motax dañu wàññi suñu privilège yu bari dañu wàññi yi nga xamné dañ ko waroon jël def ko tukki dañu wàññi euh, parce que conseil départemental amna volé volet boo c'est uniquement pour nga voyager wouti ay partenaires. Mm. té bo voyager lu mu néew néew danañ la fay journée deux cent mille francs yor yor sa hôtel yor sa lépp donc frais de voyage wala la nga né amna voyage pour def euh, un mois un mois deux cent mille par jour xaalis la. Mm-hmm. te it feyoo hôtel defoo dara ñoo yor sooy lekk yor sa lépp loolu yëpp boo ko dindee defaat ko ci nit ñi defaat ko ci investissement defaat ko ci jël ay nit ay personnel donc ci ñoom la xëy na ma yor idée bi mais bu ma génne woon idée ñi ne ma bugguñu lii wala soxlawuñ ko wala doo ko fi doxal ndax majorité bi man lañu àndal suñu buggul dara du ma ko def ndax aussi euh, li may faral di wax rek ngay député wala ngay président conseil départemental euh, ay nit ñoo la fal benn carte yow nga ci am mooy sa carte wóoru la sax ndax sa soxna woteel na la kon ñooñu danga nga leen di déglu da leen di bàyyi xel kon lépp lu ma def rek équipe bii la maanaam bureau bi waaye aussi ñi nga xam ne bokkuñu sax ci conseil yi maanaam ñoo yore wàllu technique bi mooy administration muy SG bi muy gestionnaire bi muy chef de cabinet bi muy secrétaire yi muy ñëpp ñoo xam ne dañuy liggéey ci conseil départemental maanaam personnel yi ñi nga xam ne affecté nañ leen sax ci yeneen service ñu ngi fay def liggéey bu rafet te it ci turu conseil départemental ñoo ñëpp dañ leen di sant gërëm leen xamal leen aussi suñu sañoon saa su ne ñun ak ñoom ñooy nekk donte ne yombul waaye ay nit ñu baax nañ ay nit ñu gore lañ Ranérou gii li ma la wax sànq ay nit ñu gore ñoo fi nekk fii boo fi fanaanee xamuñu sa tur amoo kar d'identité sax mën nañ génni jël néeg génne fa nit dugal la ci néeg boobu reyal la xaar nga fanaan fa bët set nga xëy te duñ la laaj sa pièce carte d'identité xam nga loolu amul Dakar foo ñu laaj la fan nga dëkk ban côté noo tudd foo noo sant xoolat ko yooyu amul rendez-vous mhm. d' accord euh, justement donc ci secrétaire yooyu la ñuy taxaw ci kenn ci ñoom muy Aïssatou Babou euh, di première secrétaire élue euh, ay Aïssatou baabu kon la ñuy daal di jox kàddu gi moom tamit mu def témoignage ci liggéey bi ni mu ko ni mu koy defee ak foofu nga xam ne moo mooy conseil départemental bu Ranérou madame Babou ñu jox la kàddu madame Diop. madame Diop la ko euh, mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam ah, di leen dalal jàmm nag yéen euh, euh, waa. acte deux cent vingt di leen nuyu di leen jaajëfal ah, di nuyu suñu président conseil départemental honorable député Aliou Dembourou Sow di ko ñaanal yàlla jàmm ah, di kontaan nag tey ci bis bi ndaxte bis bi. bis bo gis rek day nuro borom bis bi macha allah ala daw me na te frenku layna di len sante nak di len geureum diko sante nak mom nak mom president parce que président deug la man premier secrétaire élu la mako mak sama rak la fiñu joggé dafa sori dafa sori man ak mom sama xarit la nak, sama xarit la musul def dara te taguuma musul wax dara te tàgguwuma nit ñi sax dañ naan diggante ay Aysatu ak Aliou bu ci kenn dugg ku ci dugg dina ci des sama xarit la yàlla moo ko def conseil départemental nag bu ñëwee ba foofu nag liggéey la te liggéey bi musul liggéey moom kenn ak boppam bureau bi lañu am bureau bi nous sommes cinq trois femmes deux garçons mais mu musul ñoo tànqamlu ñoo tuutil musuñoo bàyyi ginnaaw lépp lu mu yeg suba ba ngoon balaa muy def dara ci wàllu réalisation ci département bi ndaxte amuñu dara lu dul Ranérou département de Ranérou musul def dara ci benn commune te consulté wuñu musul wax dara te woowuñu téléphone mu nekk fi mu bañ a nekk fi nag dañuy waxtaan ak moom dañuy eh, diso ak moom lépp lu mu yëkkati suba ba ngoon def ci boole moo tax nag lii lu ñu euh, xalaatoon la bis bii bu ñëwee dinañ ci wax ndaxte luñ ci wax rek dafa tuuti sax parce que temps bi dafa gàtt waaye bu ñu sañoon mu nekk deux jour ñu tam ñu ko témoignage bu rafet ndaxte nit ku am xol la nit ku baax la nit ku laabiir la dëgg la nag politique léeg-léeg mu yóbbu la foo xamante ni wala nit wax ci yow loo xamante ni jaaduwul mais nag politique moo demee noonu parce que ku nekk day wut sa position rek ngay def ci wax ci nit ki loo xamante ni jaaduwul mais nag bu ñu xoolee ba ci biir biir Aliou soxorul iñaanul laa biir na te ba pare fonk nañu fonk nañu ñun ñetti jigéen ñi fonk nañu bàyyi nañu xel parce que dara budul dara jigéen ñoo ñoo yore réew mi ñun ku ñu ngemb mu dem ku ñu waxtaanal du juum ku ñu xelal nga jaar ci yoon Aliou daf ñuy xel ci conseil départemental bi lépp lu mu yëkkati dinañu woo dinañu laaj suñu avis ñu daal di ko partager ak moom man loolu laa xam. ci moom jërëjëf merci loolu nga xam ci moom te euh, bëggoon naa nag balaay boobu ma déglu benn défaut benn défaut Aliou ci ci conseil départemental. waaw défaut am nag am na défaut parce que nit ku ne. bu bu nul n'est parfait. Mhm. défaut mooy dafa dëgër bopp léeg-léeg <laughs> surtout man moom man ak moom moom dañuy jàppante rek waaw défaut am dafa dëgër bopp. parce que day def da day wax dara ma ne ko déedéet ñu jàppante ba mu saf sàpp waaye léeg nag day dellu ginnaaw dëgërul bopp torop torop waaye léeg moom day matt rek bu mattee nag yëfu pël yi day ñëw ma ne ko nag du fii ma ne yëfu naar bi ñëw ñu jàppante ba mu saf sàpp <laughs> kon damay wax rek nga joxal ma ko kooku nga xam ne mooy xaritam pour ñu clôturer ñaa ci Aliou parce que bëgg naa tamit ci kanam tuuti ñu ñëw ci yow ak say activité professionnelle avant même mu yegg ci politique bi donc dama koy bëgg nga nettali ma benn anecdote boo xam ne xale la wala lu Aliou defoon la loo xam ne daal <laughs> doy waar wala wala wala yéen ñaar àndoon def ko wala lu secret daal. anecdote lañ soxla woon. Euh, vraiment. merci maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di sant ñi fi nekk euh, ñëpp euh, mës nañu ànd benn bés benn réew bi ñuy wax Mauritanie capitale bi di Nouakchott man damaa dégg naar comme ni ma ni may làkkee wolof noonu lay làkkee naar mhm. ak pulaar. bi ñu demee nag euh, ñu dal ci benn hôtel léegi nag euh, réceptionniste bi euh, benn serveuse ñëw di boyal naar la may làkk ak moom naar bi may làkk ak moom naar nag mu ñëw mu ne ma <coughs> yow looy wax ak kii ma ne ko damay wax ak moom pour mu boyal ñu ñu ñu ataaye léegi may may wax ak serveuse bi mu ne ma présenté ma ko ma ne ko kii tudduma turam nag may wax muy ree ni ñuy kaf parce que maag moom dañuy dañuy kaf lu bari ñuy kaf di ree léegi nag tudduma turam mu ne ma waa yow xanaa naar lakk naar day changé tur man yow li ngay wax rek dégguma ci Aliou Dembour léegi lakk naar day changé tur ma ne ko déedéet man wax naa ko si tur par mu ne ma déedéet man dégguma Aliou Dembour de kon kon kon làkk naar day day tur euh, en euh, daal ci gàttal euh, nit la koo xamante ne kii vraiment baax

xam naa dina ci ñëw après mais tamit dinañu jox benn idée euh, xaalis tamit du jóge ci asamaan si tey buñ ne Aliou Dembourou Sow li muy jàppalee nit ñi li muy def yëpp da nga xam ne bi ñuy def ay reportage ñu koy gis bëggoon nañu xam ndax xaalisu politique la ndax xaalisu bu mu yor la wala ci liñ ko dénk wala ndax Aliou Dembourou Sow amoon na activité wala am na activité yoo xam ne mu ngi ciy yëngu ba jëlee ci loo xam ne moom lay jàppalee nit ñi euh, sant yàlla xam nga euh, activité moom béykat la sàmmkat la damay sàmm damay béy ndax loolu laa fekk suma papp di def waaye it sëriñ laa damay sunguf donc damay doon voyager ci réew yu bari moom mi defe naa fu mu mës voyager rek ñun ñaar ñoo ànd euh, yàlla may nañ li nga xam ne doon nañ ko ci suñ papa aussi euh, wala suñuy maamaati maam ah yàlla may nañu ci ndam donc yooyu luñ ci mës a am rek luñ ci mës a bénéficier wu rek mm-hmm. Eh, dañ ko dañ koy ñëw partagé ak nit ñi maanaam eh, eh, mën naa ko defar xam nga technicien la d'une part aussi xam naa ne. Ah, waa ji daa xaw a yéex <laughs> tuuti hmm? <laughs> c'est bon donc euh, di jégalu donc loolu ay activité la yoo xam ne luñ ci mës a jot. ndax euh, nee la euh, aussi xam nga dama am métier yoy ma limal fii élevage métier la mhm. mbey métier la sum papa jangal ma alcorane ma duggu euh, aussi mu genné ma alcorane duggalaat ma école aw ma entrant sixième bima ma def examen ci la arrêté ndax dañ don mang dama bëggone trop jur ma ne damay mang jotuma def examen donc ci la dem suma ki top na ma ba ci winde bi manam Euh, Habib Thioban ndeysaan euh, léegi mag la mu ngi Linguère euh, mu ne daf may jëlee foofu ma nekk mukk fu nag yi nekk parce que man munu ma woon yeew naanu ma meew donc loolu moo yàq jàng bi donc nag mais terewul way ah, terewul kan moo lay terewul ah donc séeréer yi xam na donc terewul yooyu maa ngi commencé opération tabaski presque en deux mille Euh, di dem di jaay mais nag jaay xar moom commencé wu ma ko 2000 wax dëgg yàlla dañ judd rek di di màgg ci càmm di su ñu amee soxla xam nga dema la yoon na xam nga euh, éleveur rek mooy koo xam ne du xaar ba weer de xam nga euh, Cheikh Abdoulaat Mbacké yàlla na yàlla taas ci barkeem def ne mbaadoo la nga xam bu weer wi de ñaata ngay am te éleveur bu weer de xamul ñaata lay am danaan la bu nag yi ñi bisee ngoon ma fajal la so soxla so amu rendi eh, lakal la yàpp wi ratal la nga nan mew ou bien mu jox la nak bi nga yobbu jaay faj so soxla mais mom du xaar ba wer wi de motax rarement aussi ngay gis éleveur bu tak bracard nan la duma ko nangou tay tu ko nangou ëllëg lolou du sen cër tu sen jikko donc man dama amone am activité ba léegi damay bay, damay sam. ah li ci dess nak eh, xeyna ci boo amee xol euh, pour dimbale rek suñ borom dina xam nga nag nit lépp lu muy def rek euh, soo buggee lu baax suñ borom de def la ci jàppale soo buggee safaan bi aussi ah moom yàkkamtiwul da lay bay ngay def safaan wi rek jàpp naa ne soo amee xol bu yaatu rek pour defal nit ñi yàlla da lay ubbil ay bunt ndax man li ma gën a euh, contre rek mooy denc boo ñëwoon fi may jaay yàlla def na bi 2000 la commencé def opération tabaski mais depuis que Macky ñëw pouvoir 2012 euh, suma jerbaat bi nekk maire tey Vélingara chaque année ñooy ànd gagné wu cinq mille francs ci opération tabaski ndax li may maye moo ëpp li may gagné mais nag maa ngi ci sant yàlla ndax bu euh, euh, kii bi jotee rek ñi ma war a dimbale dañuy yokk waaye li may am pour dimbale ni ñu aussi dafay yokk sant yàlla aussi yàlla may ma ma nekk député nekk président conseil départemental nekk éleveur nekk béykat donc di bay di sàmm yooyu yëpp boo ko boolee da nga mën a jàppale nit yi xam nga liggéey rek euh, mooy jëmale nit ki ci kanam nit da ngay nangoo liggéey surtout nga nekk ndaw euh, euh, man suma salaire mu ngi commencé ci mille bi ma nekkee mécanicien yooyu nekk conducteur forage mille laa doon am su weer wi dee xam nga 33000 léegi boo ko buggee fay nit da ngeen di xuloo donc nag mais dama ko dama dañ ma dénkoon forage boo xam ne. Euh, ci biir forage bi dafa am comme dafa am collecteur dama ci jimbat ay garab garab yooyu ba tey ni nit ñi foofu la ñuy feexloo donc ba pare ma def maraîchage ci biir maanaam lépp loo xam ne nit daf koy yittewoo euh, muy soble muy suppama muy batanc muy salade muy kaani ma jëw ko fa ma am tool naanaa bu mag def fa benn booy buy jaay maanaam euh, jour mardi day jaay ba ay quinze mille douze mille francs mooy jour marché hebdomadaire bu Vélingara Ferlo bu dul loolu deux mille cinq cent par jour bokkut ak léjëm ba nga xam ne maa ngi ciy jaay te di lu dul ceeb ak diw du ma ko jënd ci trente trois mille yi te boobu boo defe quinze mille wala douze mille franc da nga am xar maanaam presque mois bi bu jotee man duma laal sama salaire dama koy jënde ñaari xar wala ñetti xar garde ko bu euh, beneen weer deyaatee ma defaat noonu donc maa njëkk a jënd coupe indil ko waa Vélingara li may wax maire baa ngi fi suma jërbaat la rus naa wax loo xam ne du noonu coupe waa ngara ñu ngi ko njëkk gis ci suma loxo te boobu duma ma PCR du ma conseil municipal du ma conseil rural donc su may mag ñoo fa nekkoon mais dema gis bu ñuy def football ñu takk ay sagar defar ba mu mel na genre coupe noonu te day am ay ay ay affaires yi lang noonu be ñoom loolu lañ doon tuddee xub boobu ñoom am na fii ay éléments yoo xam ne ay booy ndaw ndaw am na dama doon football aussi Euh, euh, latéral droite wala souvent milieu défensif donc yoyep comme ma affaire bi metti ma nak ma dajale ñaar ñetti salaire dem Dakar jënd fa coupe bu soixante francs biñ ko gisee ñom dañoo tit donc euh, liguey bo tax man nga mën ko def donc nit defay liguey té amul liguey bo xamné ne nit war na ko ruus bu dul pour man amul ben liguey bo xamné ne nit war na ko xeeb benn liggéey bonul donc nit soo liggéeyee rek da ngay suturlu boo xoolee tey wax naa ko keroog bi ma ñëwee seen rajo équipe bi ngeen yor tey Dakar euh, Actu 221 ay xale yu nangoo liggéey yor seen matériel temps bi ngeen fi jël yëpp nit ñi ñi ngi ñi ngi ñi ngi yàkkamti ñi ngi ngun-nguni ci suuf de ah xanaa ñi duñ pare waaw ñi seen affaire yi yéex na mais nag liggéey professionnel liggéey bu ànd ak passion liggéey boo xam ne nit ki dafa bugg bu ko tegee ah ñi koy seetaan dañuy kontaan liggéey tamit pour jëriñ sa réew pour jëriñoo pour jëriñ sa askan aussi da nga ci ànd ak euh, vraiment dal ak muñ parce que ndar xëyul seet sotti donc nit soo buggee jëriñ sa réew jëriñ sa askan da ngay nangoo liggéey dara yombul lekk sax yombul donc li ñu naan président de la république ci boppam moom moo ñu tiim tey gannaaw suñu borom waaye moo gën a sonn du nelaw guddi du nelaw bëccëg amul benn liggéey bu yomb man moom liggéey rek laa gëm damay béy damay sàmm. d'accord euh, dafa mel ni loolu kon nag euh, bu ñu boo ñu nettalee coupe boobu euh, boobu dem Dembourou Sow du député du président conseil départemental. conducteur forage la woon. donc mu ngi noonu donc social bi jàpp nañ ne ca daanaka ca ba nga ko mënagul nga ko tàmbali woon ndax ñun olof dañuy faral di wax naan ki la ki la jox ndékki bu la nee naa la may añ war nga koo mën jàpp. donc justement dañuy dem kon surtout ci ci ci li nga xam ne damay dellu ci jibrilu justement ñu dellool ma ko micro bi donc jibrilu boobu tey am na ay jéego yu mu defoon ci dëkk bi bu dee élément yi jàppal na tey ci li nga xam ne tamit mooy aspect social bi mooy bi nga xam na am nañ ko def euh, ci nit ñi euh, tey ji euh, tey ñu xam ne Aliou Dembourou saw bu génnee conseil départemental mu ciy def wàllam parti bobu tamit xamna dina ci ndax gaay ya xawtu nañ xam débat bi légui mu tambali buñu joggé ci question bi lay doo ko tàmbali deug dëgg ah. ndax ci lañuy duggé ci carrément ci Ranérou ak ak waxu Ranérou yi jox kàddu yu ñu bari ñi nga xam ñu ngi fi tew tay ci walu social yoy damay déllu rek euh, ci ci ci Djibril bi nga xam mom la laa àndeloon Ranérou suñu journaliste reporter choc bi euh, justement euh, mu xamal ñu ci tuuti ak aussi présenté ñu élément de reportage bu ci jappalé Voilà, euh, merci Moustapha. Donc, euh, élément reportage yi ñuy taataan euh, tamit euh, moy euh, jigen yi surtout jigen yi fi ci gox meli velingara Vélingara Ferlo gis nañ fofu jigen yi dañoo regrouper ay GIE am nañ fofu ay jardin am nañ tamit ay machine de moulin donc fofu tamit am na ay radio communautaire lu bari muy foofu ci walu social donc boudé élément bi disponible na mun nañ ko sétane justement kon euh, ñu daw rek sétane li nga xamné moy moy témoignage ñi nga xamné euh ki nga xamné moy président conseil départemental di honorable député Alioune Dembourou Sow def nako fi ci Ranérou d' euh, ñu ñu ñu revenir ci bataille damay des ak yow Jibril le temps ñu jox élément bi euh, tay ji lan mo nekkoon sa constat gannaaw bi nga waxtane ngi nii ci côté solidarité surtout Euh, fii nga xam ne mooy Vélingara gannaaw bi ñu xamee ne Sénégal sax gépp euh, pauvreté am na fi laal na fépp ci Sénégal rawatina zone yi nga xam ne dafay sori trop capital bi jafe-jafe day am ci lu bari donc bu ñu dul am ku leen di dimbali surtout jigéen ñooñu ko wax dafay xaw a doy waar lan moo nekkoon tey say impression ak ak ak ak ak euh, li nga xam ne moom nga moom nga gis ci terrain bi gannaaw bi nga defee reportage ci ñi nga xam ne ñooñu la Aliou Dembourou Sow jàppale. voilà ci constat ci terrain bi mooy lenn mooy.

ay diwlin ak ceeb donc euh, bo xolé ay salade ay légumes ay euh, chou ay patate lu mel ni légumes yëpp façon légumes yëpp dinañ ko béy fofu non di ko tamit di jaay di commercialiser Ben jigen def na foofu témoignage euh, bu bu vraiment frappant mune mom euh li mu récolté ci xaalis jotna 150000 cent cinquante mille ci jardin la donc sur euh, courte période de l'eau, donc ah. période euh, période récolte salade salade donc deux mois la rek trois mois. Ah, ah. nga récolter ko euh, de fonds propres versés ko ci GIE tamit le def témoignage Aliou GIE chaque fin de mois le 5 quelqu'un qui, euh, jigeni yi day am valeur de soit 000 wala mu sax tamit demal ci ce genre euh, financement participatif là donc pour xolé jigen yi euh, vraiment apprécier lu muy def

mu nekk loo xam ne aussi euh, lu soxal nit ñi la parce que parce que metti waayu jigéen ñi tey ñu ngi wax entrepreneuriat féminin mm. ñu ngi wax waxu parité du ci mel ni lépp rek dafa jëm ci politique bi nga xam ne mm. daf leen daf leen di jëli pour indiwaat leen au centre tey lan moo lan moo lay animé particulièrement ngay bëgg a jàppale jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk Ranérou am nga damay faral di wax su ma ko waxee nag su ma xarit yu góor yi maanaam xale yu góor yi dañuy defe ne euh, fonk bi ma fonk jigéen ñi déedéet jigéen ñi dañu nangoo liggéey euh, demande yi may jot conseil départemental jëm ci wàllu grillage maanaam pour defar euh, maraîchage bu ma ko xoolee ay groupement jigéen kese lay gis parce que ñoom dañu nangoo liggéey euh, ci kaw loolu boo leen jàppalee rek dañuy dem te jigéen maanaam mooy réew parce que jigéen mooy toppatoo doom mooy dop toppatoo euh, borom këram mooy toppatoo lépp maanaam boo ko dimbalee et puis benn jigéen du am ba yàq boo xooloon tey comme euh, cent cent cinquante million yu mu wax euh, boo ko doon jox tey xale yu góor yi donc mun na am du ñu am sax soixante quinze mille francs te it man dama gis jigéen ñi même boo leen lebale ñoom dañuy nangoo fay léegi euh, euh, xale yu góor yi boo leen joxee cinq million trois million alors au lieu ñu toog liggéey dañ naan nañ tukki alors pourtant tukki boobu loolu mën nga ci def leneen ak leneen donc man daal pour man jigéen ñi parce que lu tax ma wax ko euh, dama gis même fii conseil départemental fu mu nekk am na fu ñu war a yare ay ganaar am na foo xam ne mun nañ fa béyee xam nga conseil bi moomuñu ko dañ ñu ko abal maanaam mais biñ ñu ko abale ñun ñoo ko réfectionné maanaam defaraat ko yëkkatiwaat miir bi ba nga xam ne eh, béy yi duñ fa mën a teb dugg waaye yóbbu fa courant courant boobu ñu fa yóbbu moo may eh, quartier bi yëpp courant donc ci ay valeur presque 17 million yóbbu fa courant defaraat centre bi mais buñ ko defaraate dañuy convoqué réunion woo jeunes yi ne leen léegi ñëw leen eh, ngeen def fi tool ñu jëndal leen matériel jëndal leen pépinière gunge leen parce que dag dag yooyu ñuy yor maanaam euh, euh, kiiwu euh, comment dirais-je mooy mooy kiiwu ferme voilà domaine d'agriculture yooyu ñuy ñi mhm. ñuy wax ci département yi donc centre bi waroon na ko mun a wuutu te conseil départemental gunge leen ci mais doolu dafa nekk loo xam ne jeunes yi ñoo ko waroon pratiquer mais wax naa wax waxati ah, ba sonn indi naa sax kenn koo xam ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu yaru ganaar benn ndaw soo xam ne mu ngi dëkk euh, daara mu ñëw ne leen loolu c'est possible mu wax leen lépp mais ba tey euh, ndaw ñi des na daal jigéen ñi ñu ngi fi tey euh, ku mel na Aïssatou Babou boo demoon Vélingara ñu mel na ay Kumba Kamara ay Camba Niang ay Kumbay Ba ñoom Fatma Biré dañuy yar gànnaar ñoom Mariétou tey ay Fatma Aminata ma julli boo demee Younu fere fédération bu gën a rëy ci département bi yunu fere la donc ay femmes yu nangoo liggéey lañ donc yooyu yëpp c'est pour nag waxuñu ko pour euh, euh, xale yu góor yi merde dañ ko wax pour ko ñu gën a góorgóorlu ndax nag bu ñu sante ku baax rek euh, beneen waay bi day defe ne dañ ko xas déedéet du xaste pour ñu góorgóorlu pour ñu yokk lu ndax li jigéen ñi di daj vraiment góor ñi tamit war nañu gën a góorgóorlu ndax département bi mbéy def fi dox càmm def fi dox da ngay gis eh, dëkk yi nga xam ne dafa mel na tey boo xoolee Vélingara la wala Ranérou commune gi eh, eh, mën naa jël témoigna témoigné comme Souleymane Gallel nekk presque adjoint maire wala même bu ko nekkul it conseil municipal te it enseignant la mhm. juddoo fi yaroo fi da ngay gis dëkk yu mag yu mel na Vélingara ak Ranérou parce que fële mooy chef lieu arrondissement fii mooy chef lieu départemental nawet bi taw ba wàcc ñeenti weer muy tow ndox bi di wàcce ci suuf boo xam ne loo ci jiw mu meññ alors que doo gis kenn koo xam ne sax am dana mën a am benn mboq boo xam ne pour mu yey ko alors loolu amul amul amul amul amul rendement mhm. donc boo xëyee affaire bi bu fanaanee taw maanaam li ñuy wax ngatameere mooy taw bu njëkk te mu am doole nga xam ne ñëpp bu ñu xëyee kenn warul am jot nga xëy fekk grand place yi fees del donc te bu bu bo boo fi ñom Amadou Ali ñi dañ doon ñom ñoom Yara na dañ doon béy ñoom dendon dañ doon bay dama laaji Demburu dañ doon bay alors que ñun ñuy xëccio ba grand place yi abitoon puus donc yoyu doxalu rew dañ waxante dëgg na waxtaan wax dëgg ci la xëy na suba nit ñi xëyaat ci ci ci Facebook beeg internet bi nee na wax la leen leneen encore <laughs> mais dëgg benn bokk yaakaar biyeebul la yoo biyeebul la yoo ee eh, biyeebul ci la bokk quoi def ñuy kii <laughs> dëgg la goto ittata holko waɗi kay to goto ittata so allah jaaɓi kay kala so allah jaaɓi

conseil départemental moom moo ñu tax a taxaw fii tey ndax ñun honorable yàlla dañoo dimbale may ñu sens bi nga xamante ne bii ñun rek la ko nga Wélinga eh, Ranérou Ferlo ñun rek la ko yàlla jagleel dippite bi nga xamante ne bii dafa nekk fii ngir goxam nekk fii ngir lépp li nga xam ne ma moo war Wélingara la ba fa muy commencé fa la honorable commencé wàññeekoo ñëw ci dëkkam kon nag ñun jigéeni Wélingara bëgg naa yéen ñi ne sama gannaaw ngeen tàccul ma honorable li mu bëgg ren yal na ko yàlla may lu ko ëpp li muy def ci àddina si lu baax yal na ka ko yàlla fay ndax ñun mënuñ kaa fay de amul luñ ko mën a fayee barki dem boo njaay rek eh, école bee mu def dakaa def ba mu fees dell ak ceeb kenn xamul nag ñaata ton la fa def ku ne la wax naa la ne ñaata tonu ceeb la fa def wax na lu ko neex l'essentiel ñu fekk nañu ubbi boutique euh, magasin bi ba mu fees dell ak ceeb diw suukar tàndarma te wallaay azim man naa laa waatal ne képp kuy sax Vélingara Olof Ndiaye nag daf ne daanu daju fett waaye lu néew yi wane na. honorable député indi fi ay machines aw mulee masin yi nga xam ne dañoo ànd ay masin soq masin wal jigéen ñi defe naa ne tey ku la ci nuyu seen loxo yi tubaarikàlla macha allah loxo yaa ngi nooy nepp amul benn loxo bu ci am problème honorable député indil ñu machine soq indil ñu machine wal ñu ne deeta waaye mu indil ñu machine boo xam ne machine yi la. والله العظيم يلا خم لكم موس اكتيفيرو كور لا نغيني بارك سيدنا محمد لي ما يخ دو وخي بوليتيك دي وخي لوكو نيه ندا مان تاي دي لا دي لا غنا جيغي تي دوندو تاي ندا تاي بو وخي ما ييغ صاح دا فا نيه يالا كون سو وخي ليغا خامني دلا لا نيه تي دوت لو ام نافق ديكل نلا تا مان يالا خامني يالا غنا لوما تي لي ماي داف اي نافق لي ما وخ ييب دا فا ام تا داكا ديف دكي الله يدك بو اوبي كرم يان فا فيك مسي الله بو ديم نك لا لي وخ ني تاي boo dem yaa ngi fa ubbi ab machine nga fa toog. jigéen ñi rootutuñ jigéen ñi rootutuñ kër goo dem tey Wélingara bu fekkee yàkkamtiwu leen mën naa leen a waral li wër Wélingara ak li ci biir Wélingara kër goo dem tey boo demee robinet nga fay biig kenn yónnee ba sa bopp barki Demba Ndiaye ambulance bu bees takk la ñu indil ñoo ngi sant yàlla di ko sant di ko gërëm wallahi azim yàlla xam na ko moos jigéen ñi dañ daan accouché fii bala ñoo am oto oto ñi dem yi nga xamante ni yi moom la jël luye ñu mën a suñu malaat bala moo egg bay accouché problème lay doon wala ñu opéré la waaye tubaarikàlla macha allah amatuñ benn problème. tey témoignage bi mu ngi noonu euh, wàllu social bi aussi justement ci li fi def la. donc donc donc liñ fi def non la tambalé duggu ci Alioune Dembourou Sow génn ci nit bi en personne mais duggu ci le président du conseil départemental mi nga xamé daf ko yor euh, démission bi nga xamé ne waa dañ ko ko jox. pour mu liggéeyal leen ci walu liggéey bobu dañ ci tambalé dañuy dem ci walu infrastructure euh, walu tabax yi. gis nañu ko yenn investissement yi gis nañ ko lu ci mel ni accès à l'eau gis nañu ne eh, ndox mi xaw xaw xaw na ci jàpp même bu dee leer nañ ni ay jéego la yoo xam ne da nga koy yeggale mais aussi ay ay ay mosquée yoo xam ne dañ ko def ak ak rajo boo xam ne gis nañ ko visiter nañ ko ñu ñu gisal ko suñu bopp et tout ça y a y a pas mal aussi de doléances mais tey ci wàllu infrastructure yi daf ci am benn boo xam ne bëgg naa ju taxaw ci muy wàllu yoon yi muy wàllu yoon yi parce que gis nañu ne euh, Vélingara kat euh, département Ranérou dëkk yi xaw nañ soriante uh-huh. dëkk yu xaw a soriante bu yoon yi demeewul noonu rek dafay dafay dafay xaw a compliqué ndax bu ñu tàmbalee ci wàllu structure ak ci wàllu yoon yi mën nga ñu defal tey état des lieux mooy fan la liggéey bi toll ak lan moo xam ne moom lañ ci war a dolli bala ñooy ñëw tout à l'heure ci éléments yi nga xam ne moom lañ ci def ci reportage euh, waaw euh, xam nga boo doon xool tey maanaam euh, nit moom comme ni nga ko waxee rek li ñuy soxla li ñuy yitteel jéego yu bari état bi def na ko ndax même conseil départemental lépp lu mu def rek ci état bi la ko jëlee ndax conseil départemental amul recette budget bi ci état lay jóge donc nag lépp lu ñu defar rek maanaam peccum liir bu neexee rek ca ndey jël kon lépp lu ñu réaliser rek day dellu ci bilan état bi euh, li ci des nag Euh, yoon yi gis ngeen ko maanaam boo doon xam nga diggante euh, Vélingara Ferlo ak RN3 bi boo ci doon dugg bu njëkk maanaam da nga def lu mu néew néew une heure de temps yu tegal euh, tey gi vingt cinq minutes nga yegg Vélingara donte ne ñi ngi xaar ñu ñuulool ko ndax loolu la président digle waaye dañuy sant yàlla rek li ko tardel maanaam mooy jamono yi ñu paase Euh, euh, jafe-jafe yi nga xam ne dafa dugg ci addina bi yëpp moom moo gàllankoor ñu goudronné yoon bi nga xam ne moo war a dem Vélingara Ferlo waaye liñ ci jot am ni sax sant yàlla ndax bu njëkk métti woon na lool euh, boo xoolee tey li nga xam ne moo jógee RN3 encore dem jaar ci biir Yunu Fere dem lu gërë colli donc presque yegg na te it loolu aussi dañ ko doon def presque. deux heures de temps léegi am na oto yoo xam ne dañuy jóge Wourossogui gi dem ba Lougéré Thiolly xëy Lougéré Thiolly dem Wourossogui loolu développement la mais boo doon tey euh, xool euh, yoon bi nga xam ne moo war a jóge fii dem dëkk bu diine bu mag bu tudd Oudalaye tey ñun moom la ñu am comme dëkku diine bu gën a rëy ci département bi maanaam amul yoon quarante cinq kilomètres wala quarante kilomètres donc boo doon dem beneen dëkk bu ñu naan Salalatu presque suñu diggante ak Tamba 80 kilomètres la boo ko doon dox tey da def 4 heures de temps donc bu towee même bu fa euh, jéyee amee pour nga dem foofu dañuy bi mu fay dem ak suma mag suma xarit te ñu dem fa ci ndigalu président de la république maanaam ministre Abdoulaye Daouda Diallo mu nekkoon ministre de l'intérieur euh, dañu mujj jël hélico pour dem foofu jéy bi am na lu mot ñetti fan ñu bëgg fa dem mënuñu fa dem ndax ñàkk yoon te yooyu tey bu ñu sañoon ay dëkku diine la ay kilifa diine yu mag ñoo fa nam donc li ñuy defal euh, dëkk diine yi état bi defal leen ko maanaam tabaxal leen fu ñu def seen i gan ndax dañuy def ay ziar dañuy def ay gàmm comme ñëpp donc waaye yoon yi nga xam ne ñoo fa war a dem aussi mooy suñu priorité yi priorité tey boo doon xool aussi diggante Vélingara Ferlo ak Connox euh, yoon la boo xam ne dafa metti ak ay mbéem-mbéem donc boo xoo doon xool daal soxla nañ tey yoon soxla nañ li nga xam ne mooy courant donte ne eh, gis nga solaire bi nga xam ne macha allah def nañ ko ci dëkk yu mag mais Vélingara Ferlo courant bi gis ngeen bi ngeen di génn Linguère ngi samp poteau yi passé nañ jaabal maanaam jege nañ barke ji pour jël courant bi nga xam ne moo war a jaar Vélingara continuer presque ci daayaan yi dem connoog dem eh, boo jokkoo ji courant bi nga xam ne dafa jógee Ribo Escale en tout cas ci li ma directeur Sénélec mujj wax ci semaine bi passé avant may ñëw julli ji nee na ma commencé nañ bi ma ñëwee Linguère aussi teg naa ci bët. mais nag damay xaar ba mu yegg si passé na jege na barke ji pour ñëw jaar Lumbelaana dem Vélingara après continuer ci yeneen dëkk yi loolu nag lu ñu yàkkamti la maanaam tey bu ñu doon seet li ñu gën a soxla li ñu gën a yitteel maanaam ñu jot ci courant yooyu waaye jot ci yoon yi nga xam ne bu ñu soxlaa suñu kilifa diine yooyu muy udallaay muy salaalatu ñu mun fa dem waaye fu ñu bëggoon dem conno aussi mun fa dem waaye soxla aussi eh, tey boo doon xool centre de santé Eh, bu gën a eh, mag Ranérou la bu nit feebaree connoog Ranérou lañ koy indi wala Linguère bu nit feebaree Vélingara wala Mbam eh, fii lañ koy indi xëy na am na dëkk yoo xam ne tey Vélingara moo leen gën a jege bu ñu amoon sax même bu dee niveau de donc centre de santé boo xam ne day méngoo ak jamono ñu def ko Vélingara suñu doléance la te it def nañ ci benn réunion ak les responsables nationaux départementaux yu nekk Ranérou bind nañ leetar bi jébbal nañ ko président waaye loolu yëpp aussi boole ci découpage bi nga xam ne war nañ ko amal ci biir département bi loolu tamit président waxtaan nañ ci même suñu waxtaan tey loolu bokk na ci lu ñu doon wax ci téléphone sànq bi ma yëgee ci ko donc fexe ba dëkk yi aussi soriwaay bi li koy dindi mooy maanaam ñu def ko découpage maanaam administration bi jege population bi waaye mu nekk ay commune ndax fu ñu ci créer commune rek danañ la créer li nga xam ne mooy war ci commune donc département bi dafa yaatu pour ñu régler problème am man sax li nga xam ne moo may may ma relaxer tuuti mooy que département bi découpage bi antu parce que loolu danañu permettre maire boo fi samp rek maire boobu dana bugg commune am dox waaye su préfet bu fa nekk ak préfet bi danañu mën a ku ci nekk li nga da ngay ji dañuy gën a jege population bi mais boo doon tey xool ku nekk Kourou Karang wala Koreka bi mbaa euh, Wuro Mamoudou ah amul sax réseau téléphone te ci département bi lañ bokk. dañu war a bokk dañu war a xam ne ci lañ bokk donc te it dañu am seen carte te dañuy woteel président loolu nag euh, euh, soxla nañ ko lool yitteel nañu mais jàpp naa ne lii tax mu gën a gaaw gën a yomb gën a jàmp gën a gaaw a egsi ci nit ñi découpage bi président boole ñu ci gëm nañ ne danañu ci boole. ndax da ngeen xaar ñu def leen région. Euh, non non même bu ñu deful gis département boobu ñetti yoon ay région bon mën na nekk région mais ñun même bu ñu deful région nañ ñu defal au moins ñaar wala ñetti arrondissement euh, yokkal ñu communes yi donc nit ñi mën a jege euh, seeni administration maanaam jege maire bi jege arrondissement bi loolu buñ ko amee xam nga région yi moom ay pôle la ñu war a créer xëy na pôle nord mun na nekk loolu duma ma ci xuuse ni ndax bu ñu sañoon ñun du ñu jóge ci Matam euh, def ñuy dañ ñuy fekk ji am na ñoo xam ne aussi bu ñu sañoon ñu Matam def leen di fekk ji waaye ñun li ñu bëgg mooy maatam nekk pôle donc su ma bëgg-bëgg laay wax ndax nag loolu du ma cër mais nag am naa sañ-sañ wax su ma bëgg-bëgg mais ñun lu ñu gën a yitteel mooy département bu Ranérou mooy ñuy def découpage administratif nga xam ne dañuy créer ay communes yu bees indi Euh, euh, euh, ñu gën a jege maanaam population bi ndax foo créer commune da fa tabaxal maire bi waaye da nga tabax ay yoon da nga tabax li nga xam ne moo fala nit ñi war a fajo école yi dana gën a jege donc yooyu li koy tax daal découpage boobu soxla nañ ko yoon yi mën a am nit ñi mën a gën a jege maanaam li nga xam ne mooy administration. justement d'accord loolu ci wàllu infrastructure yi xam naa ne damay dem lu ci Jibril. parce que moom tamit euh, wàllu woowu amna ay jéego yum ci doxone mhm. ak ay bërëb yum ci yum ci jotoon xol pour tàttan ko euh lepp rek lo xamné ne waxtaane nañ ko fi ñu jéem liñ ci xam ak liñ ci gis ñu wané ko. mën mhm. ko partager justement ak euh, suñu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp donc damay ñëwaat ci Djibril euh, tey bi nga ñëwee justement fi nga xam ne mooy mooy Ranérou war a am reportage ci wàllu infrastructure yi mën nga ñu décrire rek justement impression bi nga am ak euh, lan nga gis sur le terrain te bu dee élément jàppandi na ci ñu teel ñu ko signaler ñu jàlle ci. waaw euh, ci euh, am na ay avancées mais am ci wàllum yoon yi. walum électrification rurale bi euh, walum euh, santé bi éducation bi donc bo xolé yone buñ di bu bu fi ni national 2 bi dem Vélingara Ferlo c'est en piste latérite et euh, constat buñ def encore moy Vélingara Ferlo moy tay moy chef-lieu d'arrondissement bu Sénégal bu amul courant lolou daf ma impressionné au 21e siècle et c'est inadmissible ...en euh, Sénégal qui se dit émergent chef-lieu d'arrondissement comme Félingara Ferlo amul courant ...ce n'est c'est pas faute Aliou mais c'est le président de la République Macky donc euh, il est interpellé par rapport à cela ...il régler situation dans les plus brefs délais parce que Vélingara Ferlo en tant qu'administration pour toll amul courant donc je ne peux pas concevoir en tant que journaliste vois, santé tamit donc même si que euh, évacuation sanitaire c'est la croix et la bannière mais tey gis ambulance ambulance qui pourra régler euh, les problèmes d'évacuation sanitaire mais ci lolo nous nous régler le ci qui parce que bon les plus de 17 000 km, donc mérité deux ou trois ambulances pour maintenir, une à dans dans dans dans dans le Ranérou profondeur. comme genre Oudalay Oudalay bu tawee ou wala euh, oto mënu dem foofu donc c'est complètement coupé du monde euh, on se rappelle en euh, 2016 taw bi métti bu amoon foofu ba donc Fof, Donc il a fallu que Olorab rappelle mom ak euh, ministre Abdoulaye Daoud Diallo dañu jël hélicoptère dem que la population yoy non comme si c'est Mauritanie lañu donc lolu euh, vraiment état du Sénégal warna def djégo ñom c'est des Sénégalais ce sont pas des Sénégalais à part entière mais c'est des Sénégalais qui sont mhm. qui sont des des citoyens comme ceux qui sont à Dakar comme sénégalais bu sont Touba wala bu nek Matam ville donc euh, considération bi dafa wara am cette équilibre wala injustice sociale bi dañ ko lutter contre toute forme injustice sociale dañ ko war essayer, euh, essayer xoolaat euh, au niveau du découpage euh, waxoon na ci honorable wax ci mais ci wàllum yoni yi ak électrification rurale et état bi war na war ko gën renforcer war na ko gën renforcer li ma ci sur le terrain mu ngi def ay jéego mais des na

ak ak ak goudron bi ndax ndax luñu luñu luñu soxal la euh, nek na lo xam ci on espère justement donc ñu dem justement rek xooli élément de de reportage bi euh nga xamné mom lañu def ci walu infrastructure fi ci nga mooy département de Ranérou nde wonno mi wiima lella kay diwata mi um soro mi jolo e eh, yettere ah. allah no fewi aliw ko sehel am hakkunde amen min jiiɗi tan ko développement wuuro ngo e eh, développement département kanko embo hen e to no fewi te ko sehel am ɓooyɗo te aussi parti ombo o woni ɗo e département ranneru walla si commune weligara commune woni premiére chef de village gadiɗo arde parti he kanko conseil département o arde président ha wuuro amen eh, caggal ɗum eh, min ji eh, hande caɗele moɗon ene wayno ko wayno coura en ko wayno hmm. ndiyam en ko wayno suudi sahlo est ce que hande ko mbawɗa winde min hande honto damareji tolni e caɗele eyyi to senggo ɗen ɗon caɗele kam en goodi saabu hakkude ɗo e ɗemereje e ko 42 kilométre te ko bolol mettugol te ko ɗo woni duggira amen toujours miɗen gara ɗo ko caɗele mawɗe wonata ɗum kam to senggo bolol kuura aussi min te to bange juma to miɗen jinno waɗe colloctire par ce que koye ladde min goni mi heewi caɗele seeɗa an eh, question cakkilɗiɗi ɗo woni an hol erango e hol yiyandema e darde aliou dembourso e, e diwan moɗon merci i dari kam i eto no feewi no wona seeɗa kono miɗo ɗum ewno yo ɓeydu kadi yo jokku golle no feewi kala ko tinnino yo ɓeydu tinnade yo jippo e gure he yo yewtide chef de village uji en yo yewtide population o e anda holle ojistifaji manam caɗele gonɗe ɗe hen wuuro he tigui rigui ko ɓuuri hen newade kala taway ɗum wawi reclude renda e joomen guure ɗe debbo ɗo hande kala debbom pindinɗa mbiɗa financement ina anden financement way fof koye mu ɓe gandi ɗum kala debboma mbiɗa tan ɗo ko développement wona gunduji guertoɗe wona baali wona nayyi ferme oji nayyi nani ɗo fof koye junggo mum machallah kadi ne conseil département ko yoɓat ko hen ko dawnat ko hen yimɓe ko jii ko hen koye mumen somi yejjitani mbiɗa min capanɗe nayyi en jeeɗeɗo neɗɗo ko yoɓeteɓe nder conseil départemental wona ɗo wona wona wona juma weli gara tan wona mbo mbem mbem tan wona nokkuji foof ɗo jumaji udditi machallah min ɗum fof koye laamum min jii ɗum min nanana tan minen mbe sikki guila e jibinede amen o codicé juma mbo ɓooyi hori kono de allah addi dum de allah wadi dum do ko den juma o dari do leɗɗe gawateɗe kala lekki ki da kasmas kala lekki ki da kasmas conseil départemental nene wadi dum der département he kala kala da ras burdo moƴƴi so pompe nay so nay so so ko dum wawi won fo nene der département ranere kala machine gorgal ku kutorte gal do tracteur uji e kala ko jiiɗa e, e, e, ene liggore e nder sénégal nene nder département ranir kala financement ene iwra tawi ko ndemri tawi ko ganduɗa ko gaynaka kala kombo wawi wan financement an nder e département ranir minen noon mbeɗa andi haala ko juuti feewi mi anda ko juuti on tampi kono minen ɗo balɗe temedere min tampata min kaɓata damay delluwaat ci Djibril <laughs> rapidement justement mu mun ñu tënkal euh, ñu comprendre muy man ak yeneen tamit téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan en direct euh, ñu mën a comprendre ci tënk lan moo nekkoon euh, li nga xam ne moo moom moom la reportage bi contenir ci reportage boobu euh, euh, ku njëkk a gis noonu mooy chef de village euh, ben gokh euh, jàppuma tourbi parce que. tur bi Damareeje Damareeje waaw moom non témoignage yu mu def ci Aliou dembourso mune Aliou dembourso xaritam la li ñu seq moy développement bo gissé ñoo moom chef de village la xamnañ fi gokh yi chef de village ñoo représenter kon mom ak Aliou Dembourou Sow liggéey seen liggéey mooy développement développé gox yooyu mu ne moom moom chef de village euh, de damarey mom moy premier chef de village ci ci René ferlo di dugg APR oh. donc lolou tamit euh, c'est quelque chose à signaler mom néna euh, damarey ji entre damarey ji et yenen gox yoy noonu 42 km la fofu non amul amul yone bu baax courant tamit amuñu ko bëgg nañ ko donc mom euh, euh lancé appel ci Aliou Dembourso mom Aliou Dembourso mu ngi mu ngi ci bu baax mais na yok na yok na taxaway bi na population bi surtout tamit na euh, chef de village yi mu déglu len mu mu mu mu xam problème gox gox yi mu jéem comprendre tamit sen sen jafé jafé yi ñi dundu Moustapha ci lolu euh, chef de village yoy nonu di di solliciter tamit infrastructures sociaux de base comme li ma la waxee sànq noonu la fii nii da ngay gis gox bo xamanteni euh, courant sax problème la pour charger sen téléphone sax problème la donc yoy yep chef de village bi moko lancer benen bi moy jigen bi tamit mom euh, dafa lu taxaway Aliou Dembourou pour mom Aliou Dembourou Sow Lorsqu'il est arrivé à la tête du conseil départemental, il y a eu beaucoup de problèmes, surtout au Val-Oumdor. Ils ont eu des problèmes. Ils quitté 2, 3, 4, 5 km pour aller à un autre bassin. Donc, aujourd'hui, Alou Dembourso, qui est arrivé au conseil départemental, a fait beaucoup de problèmes au val bo xolé ci reportage yi gis nga robin bi mu ngi koy ubbi ay dëkk yo xamanteni ni dañoo sori sax mais dafa yóbbu fofu raccordement tuyau bo ñëwee Robin comme Dakar da ngay ñëw rek ubbi mais loolu du téré amna na dëkk yoo xamante c'est un problème ndox moom euh, honorable dina ñëw ci tontu yooyu ci kanam tuuti justement Moustapha loolu lol mooy euh, constat bu ñu defoon foofu non ay ci éléments yi jot a teg ci euh, reportage bi d' accord honorable ñu ñëwaat ci yow gis nañu jéego yi gis nañu rafetlu nañ ko jéego yi ci xaw bari nañ am nañ solo ak ñi nga xam ne ñooy population bi di ko dund euh, ni ko gisee donc loolu moo ci am solo tey jii lan nga jàpp ne moom nga war a ci wàllu infrastructure bala ñooy jàll euh, justement ci ci ci côté social bi. xam nga wax nañ ko sànq man euh, débat yu ma munti def bu ma waxee li nga xam ne jot nañ ko def damay wax aussi li nga xam ne soxla nañ ko je pense que comme nu mu ko waxee aussi Vélingara mooy tey chef lieu arrondissement boo xam ne. Euh, amul courant waaye nag jàpp naa ne xam nga jiit jiit lañ koy wax de. Mhm. loolu di fettaate. jiit jiit la de. Mhm. jiit bu la fettee ci bopp rek maanaam tooke bi dootul yëg wàcc rek lay def mën nañ jàpp wax moom bu dee ci wàllu àddina ci président de la république la yem. boo demee ba toog ak moom mu jël téléphone am woo ki nga xam ne moom la ko dénk. nekk gox nangam yóbbul ma fu courant fa nga mën a yem li ci des dogal suñu borom la te def nañ ko ak président mu woo ministre bi woo directeur bi moo tax dama ne la semaine bii nii gis nañ ay poteau di ñëw monsieur le maire mu ngi fii gis na ay équipe yu ñëw sur le terrain natt def lepp kon jàpp nañ ne bu ci yàlla àndee mën na am mu antu te du yàgg euh, ndax xam nañ ne président ku bëgg Vélingara la ku bëgg Ranérou la ndax Vélingara au moins sa fanaan na fa trois jours donc xam na gox yi fa nekk yëpp wër na leen donc moom xam na aussi département bi gis nga forage pastoraux yi mu réaliser ci Sénégal fii la doon bindee programme bi fii ci Ranérou piste de production yi fii la ko doon bindee lu ci ëpp ci yoonu yokkute fii la guddi gi gis lu ñu daj parce que dañ doon dem ba xuloo ci oto bi ba mu gedd donc yooyu yëpp bu toogee guddi gi da doon fanaan bind donc am na euh, kii boo xam ne ñu ngi fa fanaan programme daayiru pen moo loué foofu donc mais dañuy di bind ba quatre heures du matin donc jàpp naa ne li manque xam nañ ne euh, ndar xëyul rek sotti mais nag am na loo xam ne dafa gën a jàmp dañ ko gën soxla maanaam lu mel na courant lu na yoon lu na ay bérébu fajukaay lu na éducation nationale mhm. jéego amna ci waaye ñu baral jéego yooyu te jàpp nañ ne président incha rabbi li mooy aussi am président boo xam ne boo ko soxlaa da ko jot. Euh, loolu tamit yombul donc am responsable boo xam ne aussi bu soxlaa président bi dana ko jot loolu tamit yombul li ci des nag dogal la ndax aussi léeg-léeg euh, ñu fàtt def nga defe ne dañ la fàtte fekk fàtte wuñ la ndax euh, réew mi aussi bu ñu fàtti ne dañu génn ci at moo xam ne vraiment lépp lu gouvernement bi nasoon ci wàllu développement bi mbas mi ñëwé def ko yak ndax dafa renverser programme bobu ñi indiwaat benen programme parce que nit buy euh, bala nga nan nam nefa euh, euh pël ñoy nan naan euh, mba reedu muɗum seeki ala ko wondi dum ben dere gese manam bo set fo rawé infrastructure dotul nek ci sa xel manam dañu genn ci at mo xamné raw lañ bëggoon mucc motax yu bari gouvernement bi Eh, eh, eh, namoon na ko def mu am ay gàllankoor jàpp nañu bu ci yàlla àndee te feebar bi mu ngi déddu dana déddu incha allah ah président dana def ay jéego yoo xam ne incha allahu rabbi ndax dëkk yu bari nag gis nañ fu courant bi tey courant bi ñu bëggoon def Vélingara ñun ñoo ne boobu amul njëriñ pour Vélingara mhm. bu ñu mm, centrale solaire bu ñu fa bëggoon def bu ñu nangu woon kon tey mu ngi tàkk mais nag dañ bëgg courant boo xam ne comme bu nekk fii nekk Lumbol Samba Abdoul boobu lañ soxla Vélingara ndax li fa boo xoolee tey collège wala lycée li ñuy soxla ci papier ci maanaam photocopie ak yooyu donc mënul xej lu dul ci courant donc yooyu yëpp nag euh, ay ay ay ay ay manquement la def na ci ay jéego mais nag li manqué soxla nañ ko boo doon natt nag li mu def moo ëpp lu manqué ndax boo doon natt tey ci wàllu ndox président Macky Sall fukki forage la fek sept yi depuis temps presque Senghor Diouf wadd wala sax nga ne colonial ay forage yoo xam ne eh, ñoo mag fii ñu bëree bëri donc bi président Wade ñëwee mu yokk ci lu ñetti forage maanaam forage yu nu fere forage connox avec partenariat région Matam ak région rhône mu yokkaat ci forage suñu suñu benn najaay bu nekk Lumbol Daaka muy Moussa Demba mu ñetti nouveau forage yi ma yëg man muy dix donc bi président Macky Sall ñëwee def quarante sept nouveau forage mu am ñett yo xamne ñoñu ci ma nam marqué manam am village Tubbel bo fi demoon non 17 km de nga tasik, tasek ñi waa nyiwa xam nañ don dañ don quitté fi vers 23 h minuit jigen bu boot duggu ci saret mbam wuti wat 15 km ñen ñi pan fanan ci àll nga xamne mbam saret bi bu daano yow rek jigen bi ak sa dom mun nga ci sax dess yalla def président Macky defaral len forage tey bu ñu ubbee robinet dañuy naan comme Ranérou comme Vélingara Ferlo donc fu mel na Kosaas Namaari dëkk bu dëkk lu ma téeméeri at euh, amuñu ndox ci teen la ñuy naan mu ñëw defal leen forage defal leen seetadoo ñuy ubbi di naan dëkk bu mel na Boulogne Sène forage bi pendant trente ans depuis ci Diouf président Macky Sall ñëw defaraat forage bi gasaat ko defaat fo seetadoo dangay ngay ubbi robinet ñëw naan loolu exemple rek la terewul nag li manqué xam nañ ko boo doon xool tey ci wàllu aliment bétail li ci président Macky Sall def euh, boo tënkoon waxuma la département Ranérou mais cinquante deux ans yi passé Senghor Diouf Wade defuñu deux milliards ci aliment bétail mais président Macky Sall presque mu ngi toll ci treize milliards cinq cent million ci wàllu aliment bétail ci huit ans donc yooyu différence yooyu aussi dafa jar di wax dafa jar di expliquer nit ñi xam fan la ko jëlee xam nga man jàpp naa ne li Wade def. président Macky Sall def ko bi ñu jiitu waxuma leen dara de ndax sumay may parents lañ su may lañ muy sengor muy Diouf waaye bu ñu defoon jéego yu toll ni ñaari président yi luñ def kon tey kenn du wax donc jàpp nañ ne euh, ku nekk day day kii rek ak euh, ñu ngi yaakaar ne président Macky Sall aussi euh, yi nga xam ne sumb ko te suba incha allah. maanaam ëllëg jàpp nañ ne pétrole bi gaz bi bu yàlla defee mu sotti ah dana bari yoo xam ne day changé ren euh, euh, ku ci nekk da nga ci gis sa bopp. wàllu emploi wàllu développement wàllu yeneen ak yeneen euh, jàpp naa ne incha allahu rabbi bu ñu yàlla maye mbas mi woon ñu gannaaw rek continuer nii di dem Sénégal dana jëm kanam incha allah.

gis nañ ko ci politique yu bari donc tay dañu tollu fo xamé carte égalité des chances lañu wax dem na ba ba def ko ay carte ñu melni ay djégu daf ci am euh, dañu leen bëgg jox carte bi mom mi leen fi togal justement mu mu def euh, li nga xamné moy état des lieux mais aussi buñu amé ay doléances ñu mën la ko en direct assalamualeykum euh, bandiraɓe mi salmi on den langal bandira bi jodi bi doxé département rané min calmini on min beltanima on kadi no fewi e oɗo ñalawma hannde arde haalda jooɗade min ɗo haalde réalisation aji ɗi conseil départemental ɗi waɗi e ndeer aniru walla haalde acte uji ɗi président de la république makkisal ko jooɗi ko 2012 fay ɗo ko liggani bange leydi sénégal surtout population mo ngannduɗa leydi ndi nder ɗum ko adi fof kalatmi ko le président de la république nde waɗi acte 3 décentralisation hokkude raniru wonde département nde tawno ɗon ene jeeya e yaltinde raniru e caɗele kewɗe euh, nde raniru waɗa département président conseil département waɗa minen en tant que président handicapé wonko min jii hen nafoore gueɗe kewɗe woni nafoore adande nde ko nde président de la république jooɗi e nder leydi ndi o waɗi appliqué loi orientation sociale nder oɗon loi orientation sociale ene hollirta bange collectivité locale wadde ɗum impliqué to bange activité ji handicapé ene nder du sénégal hollirde kadi wadde impliqué handicapé wadde mo recruté wadde 15 pour cent en recrutement e nder leydi sénégal hokkude kadi handicapé wadde mo identification mo dañde carte égalité de sens carte égalité de sens ene hokka ko adi fof bourse sécurité familial wallude handicap ma ala doole o caggal a liggaki e laamu aɗa wawi dañde bourse sécurité familial aɗa wawi wadde bénéficié ko wayno transport public aɗa wawi aɗa wawi wadde euh, bénéficié kadi wayno projet ji biyeteɗi rbc projet ji ganduɗa arde wallude handicap o kala activité mo waɗat taw omo wawa wadde hen bénéficié wawa yitade hoore makko e won fannuji e nder ɗum ɗon foof noon caggal yettude président de la république hono président aliou dembourou ndew jooɗi o woni président conseil département mo raneru premier recrutement makko o ƴetti handicapé ɓe nayo o waɗi ɗum kanko recruté ngam wawde e, tentinde hono loi mo président de la république waɗi e hokkude handicapé waɗede recruté e kala to watte recrutement e, caggal ɗum ndew jooɗi e, fodde handicapé ɓe nogas moni foof rokkama ujunnaji nogas wadde projet mo ganduɗa pour ƴewde beele ene waɗa gartam e nder golle ɗe waɗannoɗe e nder ɓeɗen andi kapeɓe nogas beeli gara nani hen luggeri collina hen commune huudallah e commune raniru caggal ɗum ne kadi hitande foof e nder fon uji ɗi ganduɗa fon uji social garoji ko wayno sécurité indigent so ari e nder ciblage makko handicapé ene hen jeeya e nder hitande foof fodde capanɗe nayyo handicapé ballal ngal addata bangge guura ɓen en daña hen ballal to bangge wallitorade guura e kala e département he jeeyaɓe hen e commune aji ɗi nayyi foof Eh, caggal ɗum noon ko ñagade tan nde tawno ɗeɗon golle fof so mbaɗama ittata andi kap ene jogui situation en ganduɗa hande o emin poti janggude emin poti waɗede formation nden min mbawata dañde ligguey nde tawno andi kap ne jogimin foti janggude no valide o foti jangguirde ni on foti wadde formation no on foti waɗirde ni on foti liggade no on foti liggorade ni e nder ɗum ɗon hande o école aji ɗi won hen école aji ene manqui wonde école aji ɗi ganduɗa ɗi andi kap en poti wadde yettade ha aɗirta ni Eh, ene waɗi kadi formation mo ganduɗa hande o centre formation ko goto woni ɗo kadi emin ñaguinde handicap en ɓe mbawata jaggoronede hen wonande yiiɗi wadde formation ɓe beele an daña formation qualité taw en mbawa ligganade koye men tigui rigui emin ñaagui kadi ko wayno handicapé ɓe liggotoɓe ko wayno entreprise aji ɗi ganduɗa ko entreprise aji privé nde mbawata ɓeydanede waɗede formation tawa kañumen koye men en mbawata koye men tawa hayso dañani waɗede recrutement tawa en mbawa ligganade koye men no hannirta ni mbawano koye men no kala kadi neɗɗo wawiri hon wawanirta hoore mum ni nde tawno hande o ko wiyete recrutement ko banggue sukaɓe walla banggue rewɓe handicapé ɓe ko hen jeeya nde tawno citoyen leydi sénégal ala oko handicapé ala wona handicap goto foof ene jogui droit janggude goto foof ene jogui droit liggade goto foof ene jogui droit wawde dañde ganduɗa ballal wawande hoore mum taw ene wawa kadi dusde leydi ndi wawa wallude kadi économie leydi sénégal eyyi ko ɗum ɗon tan wonno ko joguimi hen to banggue témoignage noon hono président conseil département koɓe kaali ko euh, minen kam min en tant que président fédération nationale des handicapés département euh, fédération départemental des handicapés raneru kanko aliou dembouri kala nde cohlumomi jamma nyalam ko nototoɗomi e kala komin ƴetti e banggue journée ji handicapé omo waɗa hen ballal makko taw ngal wona ballal fonwuji uji ɗi ganduɗa ko conseil département nde tawno min mbaɗa journée international handicapé 3 e décembre hitande foof somin mbaɗi ko kanko heewi wadde min appi fodde valeur 1 million pour wadde journée oɗon handicapé ko kanko e dendangal autorité ji département o e yettude kadi hono maire commune raneru kañumne e kala hitande ko jaltinowo e nder fonwuji uji mum pour wallide handicapé ji commune raniru wadde enveloppe financière pour rokkude ɓe kamɓe fof ɓe mbawa wallitorade e bandiraɓe on jarama D'accord. voilà mu ngi mel ni eh, loolu moo nekkoon euh, yi nga xam ne nga xam ne mooy dayiru des présidents départemental des personnes vivant avec des handicaps fii ci Ranérou moo ko yëkkati donc comme ni ñu ko doon defee euh, depuis le début rek dañuy dellu ci Jibriru justement mu dënkal ñu expliquer ñu ci gàttal lan moo nekkoon ay kàddu

Moi, 15 des euh, handicapés recrutement recrutement euh, carte d'égalité de sens, euh, dañ ko dañ ko am président Macky Sall moko moko len mo travailler dans les bus ñom am une possibilité di liggéey dans les bus mom tamit signalé nañ mu né quatre handicapés fi ci Rou Aliou Dembourso recruter nañ donc comme mom daf day euh, recrutement handicapé quatre handicapé recruté recrutement fille ci euh, euh, Ranérou Ferlo 20 handicapé tamit handicapés nañ ku nek enveloppe de 100 000 francs reparti dans plusieurs départements moy gox yi ak yenen arrondissement donc ci walu lolu rek les handicapés yi euh, euh, lancé nañ message ci euh, autorité locale yi nek fini, moy sen formation ak un accompagnement donc parce que ñom tamit ay citoyens lañ dañu am droit comme ñeneen ñi c'est à dire c'est des personnalités à mobilité réduite mais lolu du très ñom tamit euh euh yenen euh, droit ci ci réew mi loolu la Moustapha euh, comme euh, waxtu bi mu ngi ñu xoj donc ma teunk ci loolu rek ci handicapé yi une tay doléance un accompagnement ak soutien ak recrutement bi comme les textes l'ont dit ñu appliquer ko

parce que bu ñu bu ñu jàppee population bi bu ñu juum mu ngi toll ci cinquante. cinquante deux mille wala soixante cinq mille presque. presque soixante cinq mille. yu tegal parce que mooy recensement yu mujj yooyu mais ëpp na ko sax. Mhm. d' accord loolu lépp ci benn médecin. te ci benn médecin donc donc mu mel ni tey te ratio bi bu ñu ko waxee Sénégal mu ngi toll ci benn médecin pour mille. Mhm. kon tey li nga ne euh, soixante lu wàllu bu ñu doon wax lu ëpp lu ëpp ay dizaines yi dizaines dizaines médecins moo doon doy fii ci moo doon doy fii ci ci département de Ranérou te bu ñu ko xoolee tey ji euh, benn moo fi nekk mu nekk lu décrier en plus ay ay ay salles yi nga xam ne dañ leen ba noppi amuñu ko ci nekk ci walu évacuation bi soit des centaines de kilomètres ou qui fait 85 km. Euh, en fait lan mooy nekk saafara yi nga peut-être président euh, di nga parce que xam recrutement médecin aussi mu ngi mu ngi ministère de la santé. Mmh. Ah, comme ni nga ko euh, presque tabax équipé mais personnel bi doyul pour mun aussi li ma la waxoon sànq bi ñuy bi ñuy wax nee naa la tey euh, bu ñu sañoon fu mel na Vélingara dafay am centre de santé même bu fekkente ne euh, parce que loolu mooy li war day gën a jege yeneen population yi nga xam ne ñu ngi jógee zone Thionnok zone euh, Mbem Mbem ay Mbakee ji sama ñaaki dem ba fu ñuy wax Wulije donc yooyu yëpp dañoo sori Ranérou dañoo sori Linguère ñenn ñi sax dem Linguère moo leen di gën a jege ci ñëw Ranérou yooyu yëpp euh, soxla nañ ko mais nag comme def am ñoo xam ne ñoom ñoo ko euh, euh, maanaam fa la dépendre maanaam département ministériel bu ci nekk dafa am kuñ ko dénk ki yore wàllu santé dañuy wax ak moom don ne nag xaw na yéeg côté Ranérou ministre de la santé ndax waa Ranérou dañuy jooytu lu bari dañuy jooytu lu bari waaye ñun dañu gis ne moom xaw nañu sàgganee d'une part ndax man suma xarit la ñoo bokkoon juma bi ñuy jullee ñoo bokkoon quartier benn quartier Grand Yoff bi ñuy laataa ñuy yegg fii ñu yegg tey ñu kay euh, sant mais dañ jàppoon ne bu yoree dara daña gën a yomb ci Ranérou mais nag des na wax dëgg yàlla côté santé bi ci wàllum moom euh, jàpp nañ nag comme président mu ngi fi te première dame mu ci ndax ambulance bii ñuy maye ni ci moom laa ko jële te du bii rek donc mayoon nañu yeneen ak yeneen ak yeneen matériel tabax fi ay ay poste santé fu mel na euh, euh, euh, comment dirais fu mel na fii Samba Doge donc ak yeneen ak yeneen i jéego donte ne nag xam nga nit moom li ma la wax rek dafay metti nag yenn saa yi ndax diggante defar loo xam ne dara nekku fu woon bala nga fay samp dara dafay jafé, ndax digënté sol yéré bu bees ak summi ci yéré bu xawon yàgg bi wala bu rafle bu metti mu ci digënté bi ndax mëno jël bu bees tank tàggali ko ak bu magat bi té bala nga sol bu bees bi mo fo nga summi bale kon rafle bu metti mu ngi ci digënté bi fofu nak ala kulli al muñ da am waye tamit baral jéego defa war ñi nga xam ñom le la président ñun nak dañuy koy coow commission technique ndax am na li ñuy def di bind di wax commission technique te loolu presse bi du fa dem maanaam lu ëpp ci li presse bi di teewe mooy euh, euh, plénière mhm. te plénière maanaam liggéey bu jeex lu xes ba sotti wane moo ci des mais commission technique li nga xam ne nit ñi ñu ngi koy wax ndax ñun ñooy seen tànk ñooy seen nopp ñooy seen bët ñooy seen loxo kon fi ñu leen war a waxalee ñi ngi wax guddeeg bëccëg te duñ ko raay raayal ndax nak japp nañ ni ki nga xamne moy Kulu general kullu apériste moy suñu kilifa ñun ñep té buñu yoron diplôme yi ñu yor conseil des ministres yep dañuy tok sen wet waaye ndok nak liñu am xébuñu ko ñewuñu ben diplôme aussi ndax liñu war suñu digënté ak président ak suñu population ñu ngi koy def waaye buñu sañon ñomit nak nag liñ leen dénk momuñu ko président mo leen ko dénk wolu leen dañuy fàttaliku Allah bi du àll sax maanaam sori tey sànq yaa ngi doon wax deux cent kilomètres quatre cent kilomètres et quelque la département pour nga jógee fii nga nekk tey dem dakaar Linguère rek mën na trois cent et quelque Touba rek deux cent donc da nga def quatre cent yu tegal pour dem dakaar donc nag loolu il faut que ñu xam ne Dakar mooy suñu capitale mais réew mi yemul dakaar ñi nekk Mbam ñi nekk euh, Toubé ñi nekk tey euh, fi ma la wax mooy duunu bel wura maamudu ñi nekk mbake ji sàmm ñaaki ñi nekk euh, wuli ji wala euh, lu bol daaka wala feneen ak feneen ci réew mi lañ bokk te it nit nag bu ngeen di ànd dañ koy wax fii metti maanaam xam nañ ne jéego yu ama ama solo am na waaye nag dañu bëgg li président di wax dem leen ngeen jege nit ñi ngeen waxtaan ak ñoom maanaam ngeen xam aussi li ñu war a def ndax nag am nañ président boo xam ne dëkk yi may tudd fii yëpp yàlla def na président Macky Sall dafa dem ba foofu doog a ñëw tëgg programme am kon li ma jàpp mooy ministre aussi da nga war a jël programme boobu nga def ko sa yitte gën a baral jéego yi ndax président loolu la bëgg loolu la soxla loolu la ñuy xaar aussi ndax euh, population bi yenn saa yi am na ci ñoo xam ne dañuy defe ne dañ leen fàtt surtout ci côté yi nga fi lim léegi mais nag sant yàlla la jàpp nañ ne daal président ak ak ak ak euh, euh, kii yi nga xam ne jël na ko dogal yi nga xam ne jël na ko ah engagement yi nga xam ne jël na ko am nañ njort bu rafet ne euh, dana am loo xam ne dana soppeeku lu bare bari lu ëpp li soppeeku woon te it am na lu soppeeku ba pare. <laughs> donc président bari na bari na lu ñu bëggoon a jàllale lu ci mel ni wàllu élevage bi yaa ngi koy wax léegi. waaw moom ñeme wa ñeemu rànneeru. waaw bañ a jàll bañ a wax ci élevage. non moom kay dinañ ci wax. waaye boo ñu waxul moom moom boo demee ak dañuy tëj acte war a ubbi bi rànneeru xam nga acte <laughs> deux cent dañ ko war a ubbi bi rànneeru. waaw buñ ci waxtaanee ak maire bu jox lu benn local. <laughs> ah waaw boobu dina baax justement donc dañ koy dañ koy dañ koy dañ rek parce que bu ñu euh. ne yow déjà personnellement yaa ngi yëngu ci wàllu élevage mais buñu xolé zone bi tamit mu nek ferlu nek zone bo xam ne xam nañ ko ci élevage ta tay euh même li nga xamné ci côté ci côté circuit alimentaire mhm. chaîne alimentaire au Sénégal gis nañ ne manqué na autosuffisance ci lu mhm. bari mhm. ci lu jëm ci walu mew ci lu jëm ci walu viande tay aussi tay buñ doon wax ci walu élevage peut-être dañuy songu directement lan moy potentiel bi nga xamné ne am nako pour indi ko ci walu élevage ak autosuffisance bi nga xamné Sénégal mu ngi koy wër ci wàllu production animale ak yu mel. Mhm. xam nga am nga élevage euh, maanaam boo doon tey xayma liggéey yu ëpp yi ñuy pratiquer fii ci département bi élevage moo jiitu euh, donc parce que Ranérou li ci ëpp zone réservée la maanaam mun nañ fi sàmm mais am na ci foo xam ne munuñu fa béy kon zone la boo xam ne zone sylvopastorale la te it euh, càmm def fi dox maanam nit ñi aussi. loolu dañ ciy yëngu maanaam boo doon wax càmm nag ci ginaar ci kii jënd di jaayaat ci kii sàmm nag wala xar wala béy wala fas ak lu munti doon dafa yaatu mais it euh, nuñ ko war a war a valoriser maanaam sax mën nañ jàpp ne président Macky bu mu ñëwee ndax bu njëkk éleveur bi dañ ko jàpp rek euh, borom caaya bi ak kaala bi ak yetam boobu muy gàddu waaye nag bu demee ba nga xam ndax boobu xar lu mu rëy rëy rëy trente cinq mille quarante mille soixante mille bu chéré ba cher alors que léegi bu ñu ba xar bu jigéen di jar soixante mille soixante quinze mille xar di jar deux cent mille trois cent mille ci luuma raneeru kon am na jéego boo xam ne président indi na ko ci wàllu élevage donte na ñun nag aussi ñoo war a gën a lu surtout association yi nga xam ne ñoo ëmb éleveurs yi maanaam organisation professionnelle yi ñoo war a gën a taxaw ñoom tamit ci wetu éleveurs yi duñ ne nañu bay suñu élevage bi déedéet mais nañ ci boole élevage moderne ndax addina day def day dox réew dafay dem di gën a xat maanaam euh, yenn kii di suuf si nit ñi di ko occupé maanaam dootoo am fooy sàmmee sàmm caawa bu mag a mag bi mënuñu ko bay ndax mooy suñu ci suñu culture la bokk te it mooy tax nit ñi am hôpitaux yi am yàpp mooy tax màggal Tuuba yi am yàpp bu doy mooy tax Daaka Medina Gunaas am yàpp bu doy Gàmmu Tiwaawoon Njaasaan Kaolack Medina Baay euh, Limaamu Laay lépp lépp Seex euh, Umarul Fuuti lépp luñ événement bu fi am ci wàllu événement diine ak même ci suñu mbokk chrétiens yi maanaam li ñuy utiliser ci yàpp parce que ñoom it suñu suñu suñu ci ci élevage bi lañ bokk maanaam seen mbaam xuug yi ak liñ ciy utiliser yëpp ci élevage la bokk donc nag boo xoolee li soxla élevage hôpitaux yi camp militaire yi élevage man jàpp naa ne sax mooy facteur bu gën a am solo ci réew mi bu ñu war a gën a jiital la donte ne chaque jour nga dégg euh, euh, euh, autosuffisance en mouton nga dégg autosuffisance en lait yooyu yëpp li ñuy jiggaan ci wàllu meew dafa bari liñ ciy perte dafa bari te it war nañ ko gën a xoolaat maanaam di béy ñax di ko euh, utiliser pour que ñu am nag yi li ñuy li ngay ratt nawet nga ratt ko ci ci ci noor waaye ñu jox ñu matériel boo xam ne aussi ferlo bi ndax nawet bi da ngay dem ba tuur meew léegi sax wàññeeku na ndax léegi bu njëkk boo roboon raneeru maa ngi fàttaliku président bi ñu fi ñëwee tournée 2010 di di di di wër mu ne ma ah Ranérou man bi ma nekkee étudiant bi ñu fi jaaree dañ doon mayee soow ak diw ñor ci kaw yoon bi bu ma bu fi bu jógaan Fatick di dem ndulumaa ji wala ngi jiloñ pour vacances mu ne bu oto bi taxawee gars yi dañuy jël soow maye ko ak diw ñor ma ne ko léegi nag kenn mayetu ko ndax léegi dafa cher te nit ñi comme tali bi ñëw na da ngay gis ku jënd bidon maanaam ku mel na Amadou Ali dootul maye meew maanaam da koy jaay. donc nag yooyu ay jéego la ndax yoon bi moo ko indi euh, ñu ngi koy defaraat aussi jigéen ñi nga fi euh, euh, ñi fi doon wax sànq dañuy defaraat meew bi def ko ay mbuus defar ko ba mu baax donc yooyu yëpp nag bëgg nañ ñu gin ko lawal ci département bi wutal leen ay unité laitière unité transformation lait yeneen ak yeneen nga xam ne dañ ci gën a vraiment gis seen bopp loolu la euh, Ferlo soxla tey ci wàllu élevage. accord tey ban message ngay lancé ki nga xam ne mooy ministre de l' ci lu mu war a indil waa loo xam ne tey jàpp nga ne autosuffisance boobu ñuy wër di ci mën a jouer rôle bu am solo. mooy mu mu mu mu mu yokk maanaam ñu bañ a seen financement bi donte ne tabaski bu jotee danañ ubbi ay financement yu bari ngir jënd xar yu góor yi indi waaye xaru góor xar bu góor ci tabaski rek lay yem. kon dañ jàpp ne nañu renforcer éleveurs yi maanaam ñu renforcer seen xar yu jigéen yi ki nga xam ne dafa amoon fukki xar fexeel bu mu am ñaar fukki xar yu jigéen koo xam ne dafa amoon euh, ñeen fukki nga fexe bu mu am juróom benn fukk maanaam nañ leen financer aussi nu ñu yokkee xar yu jigéen yi ñuy wàññi lu ñuy rey xar yu jigéen yi aussi ci la ñuy mën a développer ba am auto en mouton parce que jàpp naa ne bu ñuy rey xar yu jigéen yi bu tabaski jotee nga financer maanaam am na ñu fi yore wàllu financement jotuñu leen may ñi wax mais euh, financement boobu ci tabaski rek lay yem tabaski nag benn bes la ñu rendi ay millier milliers xar donc bu pare donc dootoo euh, xar yooyu duñ jur donc ci bés bi la yem donc nag boo boo xoolee lu tol na li ngay financé ci ci tabaski boo ko financé woon ñu jënd ak ay xar yu jigéen dana permettre nit ñi ndax xar nag ak béy amul lenn liñ ciy sànni muy béjjeen bi muy der bi muy lépp donc dañ ko soxla kon chaîne euh, de valeur boobu buñ ko valoriser nit ñi mun nañ ci am liggéey emploi boobu ñuy wax ku ci nekk dañ ci am foo jàppate boo demoon tey euh, euh, lu lu mel na daral Sotiba wala Fora wala Seras ñi nga xam ne demuñu xamuñ sax fu ñuy sàmmee mais ñoo ëpp lu ñuy jëriñoo ci nag bi wala xar bi ndax boo fi jëlee sa nag ñëw foofu ñoom danañ jël euh, der bi danañ jël yeel yi danañ jël béjjën bi danañ jël geen bi sax dañ koy soxla donc yooyu yëpp yow mi doon sàmm euh, boobu moytul juróom euh, benn fukki junni bu bare ba bari nga ci am mais moom mun na ci am lu ëpp loolu mhm. donc chaîne de valeur boobu nañ ko pratiquer fii nga xam ne ñun fii lañ dëkk nga xam ne bu ñu yóbbu yàpp la ñuy yóbbu li ci des waa zone sylvo pastoral mun ko jëriñu ñun loolu lañ xam ne loolu la ñu bëgg président gin ci bàyyi xel mu ngi ci nag à travers le ministre de l'élevage ñu ngi koy nuyu nit ku baax la suñu mag la suñu xarit la mu ngi def ay jéego waaye nañu baral jéego yi nag dañu toll ci fast track mm-hmm. d'accord justement ci cinq minutes donc ñu tënk euh, li nga xam ne mooy emploi ak éducation dañ leen boole ci wàllu emploi bi gis nañ ci témoignage ci ak jéego yi am nañ ko ci xam naa ne temps bi moo ñuy dun permettre loolu euh, mais ci wàllu éducation dafa am tamit benn point bu am solo buñ ci dajeel mooy am na principalu seen bi ñu jot a waxal gisuma ñoom dañu dañu dañu li ñuy constaté en abandon école bi la ñun ñi dañuy bàyyi jàng mais aussi am na mariage précoce bi mooy ñi ñuy teel a takk nekk na ñaari fee yi nga xam ne dafay impacter éducation bi fii ci ci ci zone bi ndax pare nga pour def ci ay jéego yu waaw xam nga mariage yooyu moom mu ngi wàññeeku sax wax dëgg yàlla ndax léegi boo xoolee eh, nit ñi sax boo leen buggee maye dañuy dem signalé wu ni léegi ñi sant Dia ñemeetuñu maye euh, seen doom yi vraiment te euh, waruñu motuñu sey maanaam yàq seen jàng rek bàyyi leen loolu wàññeeku na bu baax a baax a baax mais nag aussi du euh, mariage yi rek moo koy waral te parce que aussi nit ki bu demee ba am bag war a dem Dakar donc amul fu mu jëm amu fu mbokk yu bëri loolu tamit da ciy kon tey Fuuta bu amoon université maanaam fu mel na Matam donc dana jege. Ranérou dana jege Kanel dana jege Vélingara dana jege diwaan yi nga xam ne ñoo bokk région kon université boobu man jàpp naa ne dana mën a régler aussi lu bari collège yeeg lycée yi aussi ñu gën a jege population mooy dañuy euh, revenir at rek ci ci ci découpage bi ma lay wax ndax fu ci am commune rek day am collège. Mhm. day am lycée donc loolu day jege bu boobaa nag région bi aussi am université boo xam ne dafay méngoog jamono nga xam ne dootuñ dem. feneen ak feneen ñu créer aussi yeneen université yoo xam ne nit ñi dañ fay jàng wàllu élevage wàllu agriculture waaye yeneen ak yeneen donc loolu euh, jàpp nañ président mu ngi ci formation professionnelle comme ni ko Dahirou waxee sànq am nañ fi centre boo xam ne boo bëggee jàng yenn métier yi alors que mun nga fa dem pratiquer ko foofu yooyu yëpp euh, ay jéego la mais euh, nekkul rek nag mariage bi kese mooy indi gàllankoor ci wàllu njàng xale yi mais nag nañu gën a parents d'élèves yi nañu gën a jàppale enseignants yi gën a jàppale ñoom itamit xale yi jàng ndax jàng dafa métti waaye jàngale tamit dafa métti ndax enseignement ñi jëlee la Mbuur wala Saint-Louis yóbbu la fu mel na Kuru Karang donc amoo réseau amul jën amul ndox bu bari donc yooyu yëpp yow da ngay xaw a sax découragé pour nga dem jàngale ji sax da ngay am problème donc yooyu tamit ñu gunge enseignement bi gunge enseignant yi loolu tamit dana ci baax ñoom it ñu motiver leen ba nga xam ne danañ mën a téye njàng bi nu mu waree parce que buñ boo buñ même recrutement bi yaa ngi hésité est-ce que buñ ma jëlee mbaa duñ ma yóbbu foo xam ne du ma fu mën a nekk kon mën fa nekk boobu condition yi tax nit ki mën fa nekk aussi ala kulli aal état bi gunge leen mënut sotti lépp nag mënut a sotti ndax nit même ci sa kër munoo am lépp waxuma la nag nga génn sa kër. boo génn sa kër li la ginoon yomb moo lay manqué mooy foo tëdd nit ki lu mu néew néew doole këram boo demee am na fu muy tëdd am na néeg am na lal mais boo génnee sa kër loolu moo lay njëkk a manqué ñoom it ñu sooraale loolu xam ne ñi ñuy jàngal aussi seeni doom lañ seeni jërbaat lañ maanaam dañu war a lekkaloo boole suñu doole maanaam muy enseignant muy parent d'élève muy état doole bi foog ñu boole ko du du lu dul loolu mënu ko faj boole suñu énergie mooy tax ñi mun a yegg Sénégal émergent bi président di wax ndax nekku émergent moom du njiitu réew kese moo koy chef pour nit ñi yegg si ñëpp ñooy boole seen doole. d'accord euh, lan ngay tàggoo président. ah xanaa sant ñëpp gërëm ñëpp sant euh, surtout seen équipe bi euh, ñaanal suñu département bi yàlla def balaa ngeen fi ñëwaat ngeen fekk fi aussi mu gën a yokk ñu gën fi def yeneen réalisation yu ëpp yi. sant équipe conseil départemental bi yëpp sant conseil yeeg techniciens yi ñi yore wàllu njàng mi ñi yore wàllu jeunesse sport ak ñëpp ñoo xam ne suñu notable yu mag a mag yi maanaam ku ci mel ne Yaram Makone ay Amadou Aliba donc ñeneen ñi xale yu ndaw yi nekk fi agent conseil départementaux yi yendu fi tey bay seen soxla yëpp jóge ci département bi yëpp ñëw fi ñu mot presque quarant cinq ñoo xam ne euh, bokkut ak ñoo xam ne ay presque vingt sept la ñu war a am ay CDD war ci dugalaat ñeneen incha allahu rabbi euh, ñi ngi ci dox ay jéego ndax am na ci ñoo xam ne jàpp nañ la seen contrat yi aussi euh, jeex na te nit bu doon am asutut toog deux mois wala trois mois amul dara aussi loolu nit ki def koy xool ci boppam mais incha allahu rabbi balaa may génn département bi képp kuñ ci war a signal ci contrat nga war a dem CDI da nga am incha allah ku ci war a am CDD aussi incha allah ci kattanu suñu borom balaa may génn département danaa dem concert wu fenn foo xam ne du am audience du am ar njiiden ɗo ma mun ko def ci délai yu gàtt ñooñ tamit mun a reprendre seen liggéey eh, di jot asi seen tuut ndax aussi jàpp naa ne lu war a am la te incha allah danaa ci dog ay jéego d' accord kàddu euh, yi rafet na ginnaaw kon bi ñu remercier ñi nga xam ne équipe technique bi ñu di remercier aussi ki nga xam ne Samsidine sa xarit bi ak kat yi ñiy jàppandilu ci suma suñu suñu. ah ñooñu moom sumay xaritu bopp lañ. Mm-hmm. parce que xam nga Samsidine moom laa njëkk xam ah bi mu yàlla defee ma ñëwee moo ma présenté xat yi ci directeur général bi. Mm-hmm. mu nekk nit ku baax ma ñaanal ñaan biñ fi doon ñaan ñu ci acte ak personnel yi fay liggéey. tey nag eh, ñu des fa nag xam nga léeg-léeg mbir développé wu rek gaa yi ñëw ñëw ñeewanteel leen noonu lañ koy waxee de di leen xàcc déedéet na développé waaye nañ fa des. na avancé te ñu des fa ngeen ubbi yeneen acti ay euh, ngeen passé des cent vingt et un dem ba ba ba trois cent sax. d'accord pourquoi pas. <laughs> ah si parce que am na 222. am na 222 am na 223 voilà. dañuy dañuy dem rek mu nekk ci sous région bi yëpp. bu mhm. ko defee nag muy muy muy avancé bu baax a baax. waaye macha allah seen liggéey moom rafet na te it nit ñi dañ koy seetaan lien bi nag jox leen ko waa Ranérou yëpp. Mhm. ñoom it ñu bokk ci ay.

mu ngi noonu donc te te ñu liggéey bi incha allahu rabbi ñu wéyal liggéey bi dina am yeneen jéego ak yeneen yeneen yeneen liggéey yi nga xam ne def nañ ko ci développement bi li ko war mhm. euh, dinañ leen ko dinañ leen ko jébbalaat donc tey tey da comme dafa nekk direct nekk guddi mhm. lépp du ci xaj donc mhm. damay bàyyi Jibril rek euh, mu mu mu tàggoo tënk moom tamit ensuite ñu kii voilà Moustapha mbégte ak contentement di remercier tamit euh, honorable député pour accueil bi ak dalal bi ak euh, ouverture bi vraiment ah, euh, nit ku bax la nit ku oyof la nit ku ku ku ouverte la donc ñu ngi koy remercier Actu 221 ñu ngi koy remercier donc affaire bi dina continuer dina gën a paré guñu public reportage dinañ am dinañ def yeneen jéego donc le travail ne fait que commencer. merci. d' accord le travail na fait que commencer dañ ciy continuer ànd ak ñi nga xam ne rek mooy équipe technique bi ma wax léegi lu ci mel ni sama caméraman yi jàmbali Aïssata Abdou ak ñi nga xam ne ñoo ñoo yor montage bi ñoo defar lépp ba reportage ci yemb muy ñaari alsadi mais aussi Ndiaga ak Mintu mi nga xam ne justement mooy suñu secrétaire exécutif euh, ñëw ci euh, di ñu coordonner lépp luy suñu liggéey ñu leen di remercier ñoom ñëpp nga xam ne ñoo féete ci ginnaaw te lii jeexatal bi la rek euh, daanaka bu ñu mel ni li président wax léegi ne buñ ne loolu mooy phase technique bi daanaka lii moom liñ ci yoroon wane la rek waaye li ci ñëwoon liggéey bi yëpp ñoom ñoo ko amal te ñu ngi ci ginnaaw ñu leen di remercier di leen remercier yéen tamit yi àndoon ak ñun ci guddi gi ci A221 TV di xamal ne liggéey bu tàmbali la ndax liñ fi fekk ci liggéey dafa bari te comme Euh, wax askan wi li dox ak dox ci intere askan wi moo ñu tax a jug dinañ ko topp mu jeex incha allah ànd ceeg le président conseil départemental muy Alioune Dembourou Sow bi ñuy remercier waat encore par ma voix aussi ma ci jël remerciement waa Actubes di ko teg sa loxo ci accueil bi ci accueil waa Ranérou mais tamit ci teeru bi ak oyof bi nga xam ne justement ñëw nañ ko mais aussi sa équipe bi nga àndal ñëpp ak ñu ngi ñu booleel ñëpp ñoon Demba ak ñu ni mel euh, justement yombalal nañ ñu lépp donc liggéey bi muccoon na ayib ñu ngi leen di remercier di leen jaajëfal di leen jox rendez fan yu néew ñu wéyal liggéey bi nga xam ne dina am fii ci département de Ranérou. jaaraam.